wax l'islam wax jamono tax seen rajo Baol Média FM fàggul leen émission bu mucc ay l'islam ak jamono ci rajo Baol Média FM di am ajuma bu yàlla sàkk à partir de vingt et une heures demi jàpp vingt trois si Oustaz Mbaye Ndiaye di ca feggoog Moustapha ak jamono bàyyiwul dara di waxtaane lépp luy actualité forwa ci wàllu laaj ak tontu ci wàllu diine yow mi bëgg ànd ak ñoom jotaay bi mën nga def 88 628 19 05 ak l'islam ak jamono ci rajo Baol Média FM bàyyiwul dara wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu dellusiwaat rek ci seen rajo Bawol Media FM am mbégte ak kontaan te ànd ko ak auditeur auditrice yu Bawol Média FM 88 point nekk fii ci diwaanu Mbacke tablo caabi xàll wa dëgmal dëkk bu sell ba di Touba Mbacke noonu rek la ñuy ñaanalee xalif général kullu murit eh, suñu borom tabaaraka wa taala taxawu ko may ko ak wér fanu gudd ak wér gi yaram ju faju ba lépp loo xam naan la jëm ci liggéeyab Cheikhul Khadim suñu borom defal ko ci lu kawe njortam noonu rek lañ koy ñaanalee xalifa eh, général kullu Baye Fall Serigne Modou Amni Mbend Fall di ko ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala may ko ak wér mboolem naa lu cheikhul xadim suñu borom defal ko ci lu kawe njortam noonee rek lañ koy ñaanale en lu euh, diine ji yëpp tijaan xaadir laayeen ñaseen euh, bu kunta euh, ba xaadir yàgg comme ci mën a doon rek fépp foo xamante ni si yaa ngi fa toogal sa maam wala sa jur rek di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal lu kawe sa njort noonee rek la ñuy duggee daaru salaam nuyu xalifa daaru salaam Euh, Serigne Abo Mbacke di ko ñaanal suñu borom tabaraka taala may ko ak wér ak mboolem ay euh, njabootam bi jaay Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam euh, guddaloo fanam ba li nga xamante ne si rek liggéey la jëm ci liggéey liggéeyab maam Cheikh Anta ci Daaru Salaam nam ko bëggee suñu borom taxawu ko ca noonu la ñuy ñaanalee suñu Serigne Serigne Cheikh Anta Mbacke ibnu Serigne Modou Rokhaya Mbacke di ko ñaanal suñu borom may ko ak wér aajo ju faju bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ak mbooleem koo xamante ni si rek yaa ngi ñuy bàyyi xel ci seen rajo Baol Média FM ñu del suwar rek euh, ci seen émission lislaam ak jamono lislaam ak jamono oustaz Mbaye Ndiaye di leen ko defal ajuma gu jot waxtu wi tembe euh, jàpp 23h incha allahu rabbi di fi feggoo ak mbokkam xaritam ndongali ndongal ndongali Moussa am ndongal borom Daaru Salaam Eh, saa su nekk rek eh, di yaatal li nga xamante ne si actualité la wala lu jëm ci diine jëm ci lii nga xamante ne si moo eh, yitteel doomu aadama waaye nag lum ci mën a doon rek fab lislaam teg ca wet ga luñ ci suñ borom wax bañ mën koo jariñoo ak lu luñ mën a dundee ci àdduna ak lu luñ mën a dundee ci jamono ji ak lu jamono ji soppeeku soppeeku it ñu fas yéene fopp lislaam méngale ko dendale ko bañ jàpp ci mën a wéyal li nga xamante ne si mooy liggéey bi ñu fegoo fi toujours rek ak oustaz mbay Ndiaye moom mi nga xamante ni si rek euh, moom moo euh, di leen defal bi émission yaa oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziar di wax namm nañ la lool nag yaa oustaz. wallaahi wallaahi macha allah. Cheikh Moustapha wallaahi ñoo la gën a naw yow kat fan dafa dafa mel ni xaw ma da ngaa tëj xaw ma <laughs> maa duggoon xalwa ah loolu la kay loolu la fan moom fan moom am na ci loo deen mel ne ni moom. voilà nga gis. subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta alimul bismillah inna waliyallah nawwir fuaadi walisrah sadri waj jihaadiya ka yowm badri wali barik fi lbanina walbanat bi sooratin awlowal adiyat suhli bi jeihi wuluda mun jiba talido arifan aliya martaba Cheikh Moustapha ñu lay delloo am nuyoo dee siyaar baax di jéggulu ah, ci guddeeg ya tàmbali yaakaar naa ne ña ngi ci 22 vingt 24 seen émission l'islam ak jamono di am ajo bu nekk ñu bari di ko bàyyi xel nag émission boo xam ne bu yitteel askan wi la di sant bu baax a baax nag tey nuyu rek ak a jiital ci nuyoo bi saaxibul fadila ak seex Muhammadina Muntaxa di ko ñaane yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko wax ne ko fadum waari sa nuuxan wa tamim saniinahu saxiixan muafan jaabiral xasmi bil kasri yàlla na ko yàlla def ci moom moom Cheikh Ahmadou Mountakha ak mbooleem nag njaboot Serigne Touba yëpp ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo jiite seen tooguwaayu maam ya ak ñi jiite seen tooguwaayu waajur ya ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaar ñu ngi leen balu àq waaye itam noonu lay siyaare xulafaa tur yi nekk ci réewum Sénégal bàyyiwuñu kenn di da jaajëfal baax a baax Cheikh Moustapha di siyaar baax sama waajur ca Touba Darou Khoudoss muy Serigne Bassirou Dieng di ko ñaan yàlla subhanahu wa taala fan gu ànd ak wér ak njabootam gépp sunu waajur suñu xarit suñu soppe suñu sëriñ waaw yëpp daje na ci moom di suñu wëllëre moom sëriñ Bassirou Dieng Cheikh Moustapha bu ko defee rek ñu lay delloo nuyoo ak delloo siyaar mhm. di am contentement baax nag ci bis yi nga xam ne mooy première safar dëgg la première safar mhm. am murit moom Cheikh Moustapha Mm-hmm. lu man di xew lu man di xew mm-hmm. bu weeru safar xasee teeru rek war naa yor ganeen xar kanam nag xar kanam war naa gën a belli mm-hmm. war naa gën a ubbeeku damay faral di wax ni bu ma nit nee màggal gi nàggal gi ma leen sañagu ma ko tudd ndax déggu ma ko tedd gi tudd ko ndeysaan at mu ne noonu laay doxale waaye saa yu ma déggee ne Seex Muntaxa def déclaration moom damay faral di wax ne yitte ju ma waaye di wax sax dama laa mbaa yéen ci wàccaayu màggal bu pare waaw yitte ju mën a doon dama laa mbaa yéen ci wàccaayu màggal bu pare Seex Mustafaa loolu nañu ko def farata nañu def farata ki jot même ku la jot téléphone sax laa wax hmm. na ko ne mbaa yéen ci waajtaay bi ndeysaan Cheikh Moustapha li ma lay wax lu ma ñor la da hmm. ngeen koy defee hmm. ku la jot téléphone sax wala mu woon a ne ko mbaa yéen ci waajtaay bi lu am solo la ci maam dañ ko war fonk fonk goo xam ni bu lefeeg meluñu lu dof ci mbir mi bëgg ko bu mel ni lu ci dof rek suñu bëgg day des ci moom ndax ndax noonu la Seexul Xadiim mel na ci màggal gi noonu la ci mboolem xalifaam yi ko fi wutoo lépp noonu la mel ci màggal gi da koo fonkoon bëgg ko bëgg goo xam ne moom hmm. nu mu ko bëggoon ak nu mu ko fonkoon mosuñoo gi koy fonkanoonu mbir kon daal waajtaayu moom ginaaw Seex Muntaxa joxe na ndigal li ba pare hmm. ba xam nañ bis bi hmm. léegi nag ba kara bis ba incha allah yal na yàlla may wér amiin kun fi jot wala ñu lay wax ak ku man di wax yow nee ko mbàyyi nañ ci waajtaay ba pare doog wax la ngay wax jërëjëf Seex Mustafa Eh, jërëjëf yow sa eh, am na solo nekk ci wàccaay gi nga xamante ni si rek moom mooy eh, màggal ak Touba kenn ku ci nekk rek. Euh, fas yéene ko yaatal waajal ko ba lépp loo xamante ne si rek mooy yéene yeeg bëgg-bëgg yi suñu borom mottali ko ak jàmm ba ku ci nekkit la nga xamante ne si am nga yéene ak yaakaar ngir def ko ci suñ borom def ci lu kawe sa njort ah. euh, noonu rek la ñu ci jataay bi ndax ah. xam naa danañ yaatal ci kanam tuuti ah. euh, ci wàccaay beek hmm. niñ koy waajalee ndax benn fan comme ndax ni ko daayira bi fi jógee léegi wax ku ci mel sëñ Tamsir hmm. mi nga xam ne moo wàllu culture ba hmm. na mu leerale mu doon lu am solo ni boo gisee buñ benn fan ba fukk ak juróom-ñett ya Euh, li nga xamante ne si moom la ñu am yéene. Mm. ak ni nga xam moom la ñu bëgg. Mm. Euh, def ko ci bis bi dañoo dem ba mu ëpp ñu doole. ba mm. tax dañ koy commencé ci benn ba ñun. Mm-hmm. di ko wéel di ko yaatal ba nañ fa àggee. Mm-hmm. ndax lépp xaj mënuñ koo xajal ci benn bis ba. Uh-huh. tax ba kenn ku ci nekk rek moom bu daal di teroo rek yaa nga ca euh, nekk ca ba bis ba ñëw kon mu doon lu am solo danañ soo ko yaatal. waaye danañ dellusiwaat ci actualité li nga xamante ne si moom moo xew ci réew mi. ba léegi rek nga xam ne yàgg nañ cee waxtaane ci jàmmi réew mi naka la ñuy def ba mu gën a yaatu waaye lii nga xamante ne si moom la lañ euh, nemmeeku mu mel ni euh, diggante euh, opposition ak ñi nga xam ne ñooy pouvoir. Mhm. ci sew sewaan yi nga xam ni moom moo ci xaj ku ci mel ni Ousmane Sonko biñ ko jàppee yàlla dogal boobu ba léegi te mi ngi ci comme ni nga xam noonu lañ ko waxee ñu ne mi ngi ci tawat nekk hôpital. Euh, boobu ba léegi rek te euh, na nga xamante ni si daal mooy saafara juddoogul. Mhm. Euh, bu ko defee xam naa des na ci yaatal. Mhm. xam na comme que waxtu yi moom du ñu du ñu bàyyi. su ko defee dañ cay daal di yaatal as tuut rek. Mhm. daal di ñëw ci lii nga xamante ni si mooy bis bi nga xam moo ñu may jàmm. may àdduna wërngal këpp. jàmm muy li nga xamante ni si moom la Cheikhul Khadim. ci la Sénégal waaw moom kay dama ne àdduna bi am ci indépendance nit ku ñuul. parce que boo nit ku ñuul mooy àdduna bi ndax fu fu fu dox. ci àdduna bi actuellement nii. nit ku ñuul a tax mu dox. wallaay ndeysaan ndax fi lañ daan jëlee suñu ay maam di leen fa yóbbu. ñu fay bay eh, di fa sonn. Euh, ba réew mooma euh, daal di soqaliku toll ci kanam. Mmh. muy muy muy France muy Allemagne muy Angleterre muy Espagne Italie. Euh, mmh. ba fii ci États-Unis gi nga xamante ni si moom la ñu wax ne 52 états yi. Mmh. ndax fii lañ daan jëlee di leen yóbbu Brésil ñu leen tas. di leen di leen di leen wàcce ñenn ñi ñenn ñi yéegal leen jëm États-Unis ñii dem dem dem dem fu nekk daal ci ci ci ci àdduna bi lañ yóbbu suñ maam yi. ñu soqalee réew yooya. Euh, mhm. kon nag euh, bu demee ba nga xamee ni jàmm ji am nañ ko euh, Cheikhul Khadim liggéey na ci lu am solo xam na bu ko defee buñ tabbee ci loolu rek danañ dellusiwaat ci suñu fii suñum réew daal di dal fii nga xamante ni si mooy Touba Mbacke li nga xam ne moo ñu may jàmm ba tax ñuy waajal màggal gi yaaw saas. waaw Cheikh mhm. kon de ah dañuy ubbee ci màggal gi. wala ñu ubbee te ah, dañuy daal di jële fële rek. Ah, ah. daal di daal di egg ci màggal gi. ah waaw moom de li nga wax léegi ci mbirum état bi ak opposition bi. Hmm. xam naa ni mbir mu doy waar la Cheikh Moustapha. Hmm. mbir la fooguma koon ne foogu ma yow. ci kaneen ak kaneen foogu ko hmm. ndax daal man daal am réew yaakaar naa ni yaakaar naa ni su fekkee ñi nekk ci pouvoir defar moo leen tax a jóg. ñi nekk ci opposition defar moo leen tax a jóg. réew mi warut a fii ci situation bii mu toll Cheikh Moustapha. Mhm, mhm. su fekkee defar leen tax a jóg na laa de. Mhm. réew mi warut a toll fii situation bii mu toll tey. su fekkee nag kenn ku nekk ci ñoom nag sa bopp rek la tax a jóg. rawatina nag ñi nekk ci état ndax ñooñu ñoo fu doon ñoo yare mbir yi. ñooy jooyanti ñooy ñooy ñooy wëlbati nu leen neexee. ñooñu moom bu ñu laalee ñee 5 ñoom diis lañ leen war a laal ñoom waa état. ndax yàgg na maa wax lépp. ni leen président mii de jàmm ji ma ngi ay loxoom jàmmi réew mi ma ngi ci loxol prisident de la république su bëggee réew mi am jàmm dina am jàmm su bëggee réew mel na ne réew mi mel na ne ak wér mais man de Cheikh Moussa hmm. li ma koy wax sëñ ñu laa digal ndax bu ñu la digalee doo def moom président hmm. waaye sañ nañ koo ñaan wér na sañ naa gis mbokk moo xam ne kii kat am na ci moom yitte hmm. mu ni naa ko ñaan ba xam ndax lii ma ko ñaan dee ba ko mayam déet te naa ñoo bokk réew mi nekk ay citoyen mm-hmm. yàgg nañu koo ñaan mm-hmm. dañuy taxaw di ko ñaanati nañ ko daa ñaane mm-hmm. nañu dimbali ngir jëmmi Serigne Touba. Cheikh Moustapha. Ousmane Sonko mii ñu dégg ñu ni ma ci kaso gi nekk réa. Euh, euh, réanimation réanimation réanimation. Ah? nga xam ne képp ku ñu fa dugal xam nañu soyataas la. mooy soyataas rek. Ah, ku ñu soyee rek lañ fay dugal. waaw ku yi sooy rek lañ fay dugal mm-hmm. te ñun ñëpp dégg nañ ñu ma nga fa mm-hmm. nañ ñu dimbali ngir jëmmi sëriñ Tuuba ba dara bañ koo lor mm-hmm. ñaanuñu ko ngir bokk Pastef ñaanuñu ko ngir ànd ak Ousmane Sonko ñaanuñu ko ngir bañ Macky Sall ñaanuñu ko ngir nang dañ koy ñaan ngir réew mi am jàmm ndax nit koo xam ne rek maam dangaa doon nit simple nii ci misaal nit ordinaire nii rek koo xam ci misaal xëy na xamuñu la sax toll foofu baaxut. Hmm. sa koo xam ne mbooloo daa topp sa ginnaaw. est hmm. ëpp na ñuy sàggan ci moom ba wér yaram di sooxe. leer na nañu waxtaan. Hmm. nañu fexe ba Ousmane Sonko mii jógaat mën a delluwaat këram. ñu xool nu ni réglé solution bi. loolu mooy solution bi njëkk. te loolu nag kenn ëpp ci responsabilité kilifa yi. mooy kilifa yi diine laa wax nag. Mm-hmm. kenn ëpp leen ci responsabilité. Mm-hmm. responsabilité bi bi nga xam ne moo mooy gàllu seen kaw ci ñoom. Mm-hmm. Cheikh Abdou Ahad Mbacké defan na ko. Serigne Saliou Mbacké defan na ko. gis nañ fii ñu war a tëj Cheikh Abdou Ahad ñaan intro ñu ñu doon ñu war a ñun ñun tëj ba pare sax laa wax. Cheikh Abdou Ahad ñu bàyyi leen gis nañ ko. gis nañ ko. Abdoulaye Wade ñu ngi fàttaliku ah, damay fàtte waa ji mu àndoon. mi mu bëgg defee garab de fin bi ñu ko tëjee bëgg a sëñ Saliou moo ko ñaan mu bàyyi ko loolu ñun ñëpp fekk nañ ko xam ne xew kon nag tey bu ne demee ba Ousmane Sonko toll ci état bii mu toll bu ñu xoolati ay parti politique bu ñu xoolat ay ànd ak Sonko ak ànd ak Pastef ak ànd ak APR bu ñu xoolati loolu nañu xool doomu aadama boo xam ne kenn ku ne ci ñun bu sa ku nekkan fu fi Ousmane Sonko nekk kenn ku ne ci ñun kon mës sa mbokk ak fare da ngay tiit bakkaar muy génn ñun ñëpp yàgg wa woo dem hôpital yooyu kon mës sa mbokk ma ngi foofu da ngay tiit bakkaar muy génn ndax foofu sooy tax sa kon nañu bàyyi politique bépp te xool nu ñu man a fexe ba nguur si nekkaat ci jàmm mhm. taane ànd ak wér gi yaramam normal lu ñu tegaat ci yoon ñu doog ko mhm. waaye fii mu toll ko mat a jàppale la fii mu toll ku ko ku mat a jàppale la fii mu toll waratu waruñu cee doxati ngir ay ay politique wala ngir ay parti politique wala ngir nangam du nang nan ci dox ngir jëmmi yàlla ak jëmmi doomu aadama ji nga xam ni. Hmm. dara day daal ci am kenn ku ne yëg ni lii mitti na ci nit. Hmm. nga xam ne tey bu daan président day mitti ci ñun. Hmm. bu daan benn ministre ci ministre yi day mitti ci ñun. kon bu dalee ci kaw Ousmane Sonko day metti ci ñun. loolu rek la. ñun ñëpp nañu teg politique bi te fexe ba nu nu mën a fexe ba moom mii lii mu nekk mu tari ak jàmm nekkaat ci jàmm lu ñu def ñoom ñoo koo Cheikh Moustapha loole sañ nañ koo ñaanati ñu daan ñaane mhm. ndax itam kët sagam nit li ñu wax nit ordinaire nit ordinaire sax amul waaye li ma bëgg wax ko koo xam ne ñu la ci misaal mhm. xamuñu la mhm. bokkut ak doomu ara boo xam ne tam adduna bépp da laa xam am ñoo xam ne seen yaakaar jëpp ci yow ko wéer kooku mbokk yi saggane wér-gu-yaramam wala nga saggane nangamam musiba la ndax lu la ca fekk ëllëg mën na taal am réew te kenn bëgg réew mi takk lu leer daa ku mel noonu danoo war a gaaw ci ay mbiram ci lu mën a doon nag laa wax. Hmm. loolu mooy li war a am. Hmm. nit nag den sol ci xelam sol ci boppam ni ko diw nangam diw nangam diw nangam moom xoole ko ba demee bët fekk demewul noona hmm. lool bari na ci rew mi. bari waaye nag koo xam day taxaw ne Moustapha Thiam day ñëw ci kilifa ni ko Moustapha Thiam day nii la mel nii la mel boo ko moytuwul day jël ndaw ñi da leen di nangam. wàllu tudd terroriste nangam ak nangam ak nangam ak fekk ala waxi neen la Moustapha Thiam melul nenn nit ku baax la. bari na fi. li may wax ñëpp xam nañ ko. nit mën naa sëgg ci ba um nit naa ko diw de nii la mel. day manipuler gone yi. day ànd ak ñoom day def nii day def nii day def nii wax a wax a kooku gëm loola fekk li ñu wax ci kii nekku ci kii ki ko wax sax amaana moom moo mel noonu. amaana moom mii tuumaal diw naa diw nii la mel amaana moom moo moo mel noonu. Mhm. kon nañu waxtaan. na nañu toog mm-hmm. nañu pencoo dëkk bi mm-hmm. bu ñu ko paacoo mm-hmm. jot na sëkk nag fu mu ñu waxtaan jot na sëkk ñu waxtaan jot na sëkk ñu waxtaan jot na sëkk kilifa gu mën a doon taxaw taxawaayu kilifa na dëgg nag ñu xam nag taxaw nga dëgg taxawaayu kilifa nag waaw maanaam jël lan jël say engagement say xanaan xadib seexul xadib sunu waaja kara bi mu engagé ci tag yoo saa saam da doon wala tu xadiman fi mu ci daahi muhammada angar saw naa ci tàgg sama waa jiite dut ma areer kilifa nag day toll foo xam ne dootoo gees sax da ngay jël say engagement si Abdou Ahad Mbacke dafa waxoon ni néew ma duma juum waaye ma juumee mbooloo juum ndax lépp lu may def bala ma ko def dinaa waxtaan ñu ma wax war a waxtaanal waaye ma waxtaanee ñoom ba kenn ku ne jox ma nag say xalaat ba ma engagé saw dootu ma areer te loolu alxuraan ko ci ko wax wa amruhum suuraa baynahum hmm. daal li ko ne wa saayiruhum fil amri lépp looy def yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi na nga diisoo ak ñoom muy saxaaba yi waaye Seydina Mustafa bu diisoo ak ñoom ba pare nag ba kenn ku ne joxe xalaatam mu ne ko fa isaa sabtana fa tawakkal ala la boo ko see jël engagement nag bu bu bu defati kenn muy sa wéeruwaay allahu akbar noonu la kilifay def kilifa bu ko see jël maa rek de dégga sana mboolem lu nekk ci kanam ak lu nekk ci ginnaawam suñu borom rek lay teg ci kanamam bu ko defee rek dëgg da koy daal di yomb dëgg da koy daal di yomb waaye nañu bàyyi politique nañu jël suñu xalaat ci jëme ko ci nit ku feebar rek ku mën a doon te feebar mm-hmm. waxuma julit de waxuma julit sax bu kenn tudd julit mm-hmm. doomu aadama rek bu feebar tey li ci yow ci moom boo ko mënee mm-hmm. doomu aadama kon ni ma humanité wàllu humanité rek laa wax si am sama bu feebaree tey li ci moom sànqantubaa koo ne ab julit la tey bu tolloo ci yenn état bi ñun ñëpp war bàyyi politique teg ko fexe ba lii ko dal ñu ñaan yàlla mu waaye wallaay asim nit ku nekk ci réew diw feebar nga ngay ñaan yàlla mu jóge fi loolu loolu politique jëru ko sëñ bi dara jëru ko am na ñoo xam ne tey bu ñu sañoon diw faatu loolu mooy lan loolu mooy lan dara jëru ko nit ku mën a ci àdduna yéene sa mbokkum jul jàmm man na président bii fi nekk jàmm dong laa ko yéene mhm. suba saye mu nekk fi ba jóge fi dara du ko wokk dara du ko xuri mu dund li mu war a dund di ko jël mboolem ay ministre am loolu laa leen yéene waaye mboolem ñu nekk opposition bi loolu laa leen ndax jullit loolu yéen a bokk ak jullitam te ñoom ñeen ay jullit leen comme ñun te it yonent bi dañoo digaleen ni dee leen xeex ak ñoom ba kare seede ni yàlla rek kay buur taxawal julli natt asaka woor weer koor su boobaa sañeetul leen a dóor sañeetul leen a ray te ñoom ñi ñëpp seede nañ lool kon mën leen a génn ci gi si amu sama ak wér yaa oustaz 88 628 19 05 88 628 19 05 noonu la ñuy def rek ngir mën a càbbi ci jataay bi saa su nekk rek seen émission euh, l'islam ak jamono usas Mbaye Ndiaye di fi feggoo ak ndongaam li ndongale ndongali ci am ndongal borom Daaru Salaam ci mbooleem loo xamante ne sii rek euh, xew-xew la ci réew mi euh, muy ci diine ci politique ak lu mu ci mën a doon naka la ñuy waxtaane naka la def ba jàmmi réew mi taxaw ba askan wi mën cee gis seen bopp Eh, gis seen bopp nag eh, boo ko déggee mooy ñoom ñu am jàmm mën a xëy ak wàcc mën a eh, dox seen i soxla mën a am lu ñu yot seen a njaboot loolu rek moom moo ñu tax a jóg te loolu moo ñu tax wax ak lu mu ci mën a doon mais asas dafa mel ni ginnaaw bu fekkee loolu dafa xew hmm. kenn ku ci nekk ñaan intervention ñu daat koy bàyyi mu daal di dellu këram hmm. ndax ña nga xamante ni si ñoo fa des ñoom it duñ def lu ni mel ngir ñoom it ñu ñaana leen intervention ñu daal di delluwaat seen i kër ndax loolu bu fekkee noonu lañ ko jàppee Eh, ku ci mel ni man nekk fa def ko ku ci mel ni mu jóob caat nekk fa def ko keneen def ko keneen def ko bu yàggee ña fa nekk ñëpp dat koy defandoo ñu daal di eh, bàyyi ñëpp eh, Cheikh Moustapha comme comme man li may ñaan mhm. du jëmmi du jëmmi mhm. ñu ni kii nen ko baax donte ma sañoon ñu ba ko nag mhm. wax dëgg yàlla ma sañoon ñu ko mhm. yàlla sama xol rek laa ko seeral mhm. ndax bëgguma kenn ku tëj ci àddina kenn daa bëgguñu tëj waaye nag bëgguma sax comme waaye jëmmi fi mu toll laa wax état bii mu toll nga xam ne ay médecins yu am xam-xam seere ne fu mu toll nii wàllu wér-gu-yaram moom sooxe ne sooxe goo xam ne ñëpp ci tiit loolu ñëpp dégg nañ ko dégg naa ko dégg nga ko ñu xam ñu médecins yu xam xam nga ñoom ñoo xam seen liggéey ñoom ñoo wax ni fii mu toll nii wér-gu-yaramam sooxe na dëgg-dëgg sooxe loolu laa wax ni lu ñu ci man ci taxawu ko ba mu tane ba wat ci état santé maam état santé bu baax. Mm-hmm. nañu fexe ba def ko. Mm-hmm. loolu laa wax. Mm-hmm. bu ñu bu ñu fexee ba mu tane rek ñu xoolaat ñoom ñuy def ñoo xam. bu dee dañ koy tëj ñoo xam dañ koy tëj. bu dee dañ koy baax dañ koy baax. loolu waaye nag nit ku toll fii moom ci koo xam ni mbooloo da daa topp sa ginnaaw. ku mel noonu ëpp na lu ñu man ci taxawu ko Cheikh Moustapha nañu ko taxaw te itam ñu ni wooy ay kilifa muy kilifa diine kilifa aada. ñu waxtaan ci mbir moomu. am réew mënu ku nekk opposition nga tëj. Hmm. ku nekk pouvoir nga bàyyi muy def lu ko neex. waaw loolu de leer na. wax dëgg yàlla nañu waxante dëgg. Hmm. ñun dañoo gis fii ay vidéo ak i audio yoo xam ne ñi ko wax ña ngi dox seeni soxla ba tey te liñ wax dafa lu garaaw la. Hmm. gis nañ fii benn ministre bu ñu tuumaal ni ko dangaa jël nangam dangaa sàcc alalu askan wi nangam nangam. mënu ko yow diw jaar ci turu bare ministre. ni ko maa yow ñoo bokkan fu ndaa jëlee. booy wax may wax. dangaa jël ma jël loolu est-ce que am réew dina doxee ci noonu. ah. loolu ñun ñëpp di gis nañ ko fii di ah, <laughs> benn ministre wax na ko fii léegi nag bu ñu tolloo tey ci am réew moo xam ne tey ci misaal hmm. boo dem ministre boo sàccan milliards askan wet kenn du wax hmm. loo man di jël kenn wax boo dee am simple Mbaye Ndiaye wala simple Moussa Thiam boo saqatee sax ñu jël yóbbu kaso ah, buñ tolloo foofu nag kon kon kon man réew kañ la réew mi dox hmm. réew mi dañoo war a yemale ñiy wax dëgg ak ak ak ak ñi nga xam ne ñoo ne ci dëgg te nekk ci opposition bi nga xam ne ànduñu ak kenn salaabu ko ñu ànd ak kenn te dëgg rek ñor leen. Hmm. ak ñi ne ci opposition bi sax tey wax dëgg. Hmm. ak ñi ne ci pouvoir tey wax dëgg. Hmm. ñu xam ne ñii kat ñoo bokk lu ñu bëgg. Ah, ku ci ne tappale rek nekkal ci pouvoir nekkal ci opposition nekkal ci naam ñu jël la nag yóbbu ne yow mii li nga nekk dëgg. mais nag ñi nga xam ne dëgg leen ñor réew mi ñor kenn war leen a mu doxataan. kenn war leen a tëj kenn waru leen wax wax ju ndax réew mi leen ñor dëgg leen ñor. yow mi yaakaar yow la ñu xeex boo fi jógoon tey itam ëllëg ku fi toog dëgg yi ñuy wax kooku lañ lay wax waaw kon kay ñoom ñoo ñëwantu kenn sama classe gi. ak leer. boo xam ne réew mi la ñor sama sax ah. <laughs> leer nañ yaa oustaz que ci biir wax ji sax dégg naa ci ñi nga xamee ni dañuy ruut euh, bañ nañ ko ba euh, ruut ci tool lañ ko euh, xamee mm. waaye ndekete am na ci mbooloo mm. koo xamante ne si ku ci mel ni man day ñëw gis ku ci mel ni Modou Diop Thiat ne ko oustaz mbay Ndiaye nii oustaz nangam oustaz nangam ba mu jàppee ko xoole ko bët boo xamante ne si ah. du du du la gën ah. loolu nga xamante ne si mën na indi ay jafe-jafe yoo xamante ne si kenn man ku ne mën ngaa xam fa muy commencé mm. xam fa muy fa muy mu mel ni loolu euh, ci euh, euh, olof buñ koy wax da naan ak caytaane koo xamante ne si day yee fitna mm. mu mel ni loolu it lislaam wax na ci lu yaatoo yaatoo yaa oustaz waaw mm-hmm. lislaam wax na wattaqu fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa mm-hmm. loolu loolu lislaam wax na ko ndax itam mm-hmm. maam nit koo xam ne yee fitna dong ko yo seex nga xam ne addinam yëpp mooy na fitna tàkk waxoon naa ko fii ay jamono noonu naa am na ñoo xam ne buñ sañan Sénégal fu mu toll mañ tàkk du sedd Eh, loolu la fu mu toll rek ma ngi bax. Hmm. bu Sénégal nekk amee doon ju glace rek. sur xol bon na. moom na senegal foo ko fekk na door xalu sawar rek di boy. Hmm. sur xol bi sedd ñu man di débat ci télé yi di man di wax ci rajo yi. Hmm. di man di yëkkati ay wi. am na ñoo lool loolu dong li ñor. am na ñoo xam nag loolu bëgguñ ci dara buñ sañee Sénégal di sedd guye. ñii liggéey di liggéey ñii wax di wax. ñi kenn ku nekk la nga bëgg a nga nekk ta réew mi am jàmm. am ñoo xam loolu la bëgg waaye alxuraan waxan na ko. Hmm. noonu am na ci gaa yi ñoo xam ne li mu bëgg mooy aw ay di tasaaroo ci nit hmm. aw ay di ci nit ñi. mooy anta seel faay sa. Hmm. nga xam ne li ñu bëgg mooy foo fekk. na mu saa am am aw ay bu mu am jàmm. bu saas bay am jàmm. bu uh, bàyyi galas du am jàmm. kenn am doomam bu kenn am jàmm rek. nga xam ne ñoom loolu moo leen neex dox ci loolu. ñëw ne Moussa Thiam est-ce que dégg nga li Oustaz Mbaye Ndiaye wax yow lay waxal de wax ji yaa moom ah, doonte tudd la dem ca Moussa Thiam ni ko est-ce que dégg nga dem ci Mbaye Ndiaye ni ko est-ce que dégg nga li Moussa Thiam di wax yaa moom wax ji hmm. nga xam ne loolu day mujj day day def day day day def maanaam tanaafur hmm. man day teqale hmm. lan xool yi xool yi ñi nga ni ñoo gëmante woon bëggante seen xol day mujj ñuy dawante cey yàlla ñu dawante te loolu am jël waru ko def waccal xuluubana ala tawaadudi bilaa tanaasoxin wala taxasudin wala taxasumin wala taraaburin wala tabaaxudin xatta nasira muslimina xaaseen wa muminee mox si saan loolu sëñ tubaax ci mag na bu si bàyyi hmm. ah, bu ñu dawante bu ñu bañante bu ñu wanante ginnaaw bu ñu bu ñu bu ñu xeex bu ñu xuloo hmm. dégg nga ban nekk ay julit yu sell julit yoo xam ne sunu gëm yàlla day fees dell ci kaw suuf hmm. loolu seexul xadim ñaan léegi nag képp koo xam yaa ngi dox ci nit ñi di féewaloo di kéngangloo di mbëkkante di xeex di rayante di nangam ak nangam yow te fekk bal booba yow yaa ko wallaahi asim na nga jabu nga xam ne sunu borom sampana la sa gir te sawara te kenn du ko buddi sama ko loolu wér na yow saas comme noonu nga xamante ne si noonu la amee rek euh, loolu jàmmi réew mi euh, loolu jàmmi réew mi euh, jàmm da koo gën ah. mu mel ni kenn ku ci nekk soo looy wax wala nga bëgg ko it mooy jàmmi réew mi ndax bu réew mi amee jàmm askan wi am jàmm niñ ko faral di waxee waaye luñ fob teg ci lislaam dana ànd ak jàmm waaye dañ koo fob teg ko fële kenn ku ci nekk di dox nag ca bëgge ak it sa xalaat ngir sa mbir dox looloo waral jafe-jafe yi nga xamante ni si mi ngi am ci réew mi saa su ne euh, di euh, law waaye nag bu lawee ñemee teq seen nekku ci mm. muy mm. xamante ne si wax dëgg yàlla fa ñu toog ñu ngi fa toog ngir bëgg jàmm te mënuñ koo am lan moo ko waral muy ñun néew ci euh, lii nga xamante ni si rek mooy askan wi euh, ñoom ñooy lal yooyu ka lal li euh, di indi jafe-jafe askan wi di ñaan rek suñu borom tabaaraka wa taala dolli ñu jàmm. Mm-hmm. loole rek jàmm jooju ñuy ñaan te kenn indil ñu ko muy cheikhul xadim moom moo tax bañ dañuy daal di si rek ci dëkk bu sell bi tàbbi si ci bis bu tedd bi nga xamante ni si mooy benn fan ci safar kenn ku ci nekk jóg wàcc ginnaaw bañ ko waatee at. waaye nag eh, mën naa ne noppi ngir taxaw ci eh, kenn ku nekk yaakaar naa li nga doon waaj waaj sax man yaakaar naa ah. waaj jeex na mm. jëfa ci des <laughs> jóg jëf parce que li ko waral mooy eh, ñi doon waaj ñëpp naan safar gi safar gi safar gi bi mu dikkee kenn ku nekk jóg nga mm. la ca door mooy gis nga ci benn fan bi ci la ñëpp jóg bale dëkk bu sell bi mm-hmm. ñeen nañ ñi kenn ku nekk nag daa nga daa jóg commencé jëf moo di def ay bis yoo xamante ni si di ko waajalee màggal gi yaaw saas mu doon loo xamante ne si lu am solo la mm-hmm. ki nga Oustaz ki nga xamee ne moo sonn ngir lislaam ki nga xamante ne sii ba bakkanam jaree lislaam mm-hmm. ba mu jaree bakkan mm-hmm. moo tayle bakkanam mm-hmm. ngir lislaam am jàmm ki nga xamante ne si képp koo xamante ne si am nga euh, maanaam dagg nañ buumu jàmm ci der bu ñuul kii moom moo tax muy Cheikh Ahmadul Xadim te xaadimul rasul euh, doon koo xamante ne si wax dëgg yàlla lim ñu defal noonu de defaguñ ci dara dara dara dara dara ci lim ñu defal te kenn ku nekk nag yaa ustaas yaa ngay bàkku di mm. fëgg sa dënn naan mana mm-hmm. cey sëñ Tuubaa mm-hmm. li sëñ Tuubaa def mm-hmm. te kenn defagu ci dara mbaa nga wane lenn lu toll ni trafatal ay ni lu jëm ci liggéey bi nga xamante ne si moom la ñu Cheikhul Khadim bàyyee ana nan lañ war a mën a def yaa saas rawatina ab liggéeyam jërëjëf Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha damay tëj ca ca ca ca ca kee tuuti nga may ma tuuti. ma tëj ca ca fee waaw ca jaa fi. la may tëjee ca ñoom mooy. Hmm. ministre yi nga xam ñoo ànd ak président de la république. Hmm. ak jëm ñu président ba pare. Hmm. président de ci mu am. ak ñi mu àndal ñëpp laay maa ngi leen di ñaanat ngir jëmmi yàlla. ngir jëmmi yàlla. nañu waxtaane réew mi. président la ma la ñaan laa de ñaan bul bul bul nangu mukk corona bu doon mën a. billaahi corona bu doon mën a bu doon moo def dara. ak wér. lee des sa bëriwut. te am nga wayu commencé rafet bu ko yàq. yàgg naa la ko wax. la leer na yow sos hmm. bëgg nga am way woo xam ni ilaa abadi abiye kun ni président de bii nii la defee woon nga ni boobu président moo fi gën. bu la ko kenn yàqal. bari na ñuy ne sa ginnaaw naa la nii ak nii fii nga toog lañ bëgg a toog mu ñu faa toog xamuñ ñu ñuy def nag ñu nekk di yàq rek bu leen ko nangul bu leen ko nangul mm-hmm. fexeel ba waxtaan mm-hmm. fexeel ba waxtaan ak askan wi mm-hmm. askanu Sénégal askan wu baax lañu naqari ñoo waxtaanal te itam am nañu xalaat bu nit waxee den amuk dégg-dégg rik waay soo ak pouvoir bu mu tax ngeen jaxasa réew mi suñu xel na dal Mm-hmm. te yéen a ko mën a dalal. Mm-hmm. sunu njaboot na dal te yéen ko mën a dalal. Mm-hmm. sunu réew na dal te yéen a ko mën a dalal. rawatina nag fii ñu dëgmal nga xam ne loolu dëgmal bis bu tedd bii nga xam ne moom nga wax léegi nii. fii moom diggante bii dara dafee xajul kon bu leen fi xajal dara. te loolu dañu ko teel avertiser. diggante bii dara dafee xajul bu leen fi xajal dara. ndax dañoo toll ci wàccaayu màggalu Seexna Xaadim kon ngir jëm yàlla ña ngi ñaan. ngeen jéem a waxtaan seen biir. Mhm. kii nga xam ne moo nekk ci kaso bi ba pare nekk hôpital. Mhm. ñu fexe ñaan yàlla yàlla yëkkati ko. mu mhm. amaat ak wér gu yaram gu gu gu nekk fa mu fa mu nekkoon. fa mu nekkoon dara bañ ci sikk. bu ngeen ko dee tëj ngeen tëj bu ngeen dee yóbbu ngeen yóbbu waaye nañ ñaan yàlla daal mu wér. loolu moom ku ne ci pouvoir ak ku ne ci opposition ñëpp ko war a ñaan ndax ab julit ay ñaan mbokkum julitam. loolu moom mooy dëgg waaye nekk ci poids rek tax man dégg naa tey ñoo xam ne biñ leen tàllee micro te ay kilifa lañ li ñu wax da ngay tudd nekk ay bu ne ci poids mu tax nga nga nit ku ne ci fee xanaa lu bon bon nga ñaanal ko fa ak lu mën a xew. Mm-hmm. mais nit tool ne toll foo xam ne boo Moustapha Thiam dina tool foo xam sax boo xamante ci moom lu ñaaw sax war nga koo nëbb ba mu jóge ci situation yi. li mm-hmm. nga xam ne ma la wax. leer na Moustapha Thiam war na ci moom lu ñaaw. mu mm-hmm. tool ci situation dama koy nëbb ba situation yi jàll sax su ma man fekkee man bëgg naa ko wax lu ñaaw ko wax mais ah, Moustapha Thiam ni nga toll situation xam ni ah, non non non li ñu wax naa ko fu ni fu ni fu ni fu ni feesa kenn du fa jooyu góom waaye mm. sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi loolu doy waar la mm-hmm. kon foofu rek lañuy tëje mm-hmm. di dem sa question bi nga xam ne mooy Seexinal Xadim mm-hmm. Seex Moustapha li nga wax léegi dafa am solo muy bari waa nag kuy bàkku naa mën a tëdd tus ak leer looloo bari ci dëkk bi bari ci réew mi ak leer yaa sas fii ku fi naa mën a doo dara nañ waxante dëgg Seexinal Xadim doo nga fi dara yàgg naa ko wax. Mm-hmm. si Abdou Ahad Mbacke moo ko wax ñun ñëpp ñuy dégg. Mm-hmm. moo ne liggéeyam bii mu koy liggéeyal kenn ku ko ŋàbbale ak satala wala muy ñaan nga daa amut. Mm-hmm. moo liggéey liggéey ba sunu borom fay ko ko fay ñun jariñoo lañ ci am. kon nan ko ko sàmmal nag. si Abdou Ahad wax lii de. ak leer waaw ak leer ñu wooyee doom sax amu ko. ñun ñii ñu wooyee ay doom sax ñoog taalibe yi ñoom day sàkku ngërëmam. doon ay taalibe ci kanam. mooy tax ñu am li ñu bëgg. mooy tax ñu am li ñu bëgg. kon sëñ Tuubaa ak taalibe la safe moo fa safe ak taalibe moo fa safe. ci kon nag mbir mii ku yaakaar dara nga ci doo ci dara yoonu sëñ bi ku jàpp mu dem ku jëpp mu dem. ak a leer waay noo mën a mel ak koo mën a doon noo mën sant laa wax nag. Mhm. boo jàppee day dem boo jëppul lay dem. ak a ñaan na ko borom sunu borom nangu na ko. Mhm. ñu ko jëf rekk ci des. te ilaa xiyaami saa day am ñu koy ñu koy jëfal li mbëgg moom Sëñ Tuubaa kon yàlla nan bokk ci ñu koy jëfal li mbëgg ma ne Seex Mustafaa dama sant yàlla li ma sant mooy waaw dafa am lu bari lu ma daan wax naa nii naa nii damaa gis tey ñoo xam ne dan daan doon ay waxtaan kat ak i waarakat yoo xam ne maam wax yi daanu rek lañ daa wax tey nag maa gisal saa ci télévision yi ñoom ñëpp ñu yeewu léegi hmm. di jàjjee ak di waare nii may def uh-huh. maa ko gis ma ne xaa lii rek laa leen bëggaloon yëf yi sëñ bi yàgg na maa ne du sant de mhm. yàgg naa ko wax mhm. du sant du fii saaba saa baay jébbuloon fa laay jébbulu mhm. déedéet da ngay kii ndax ma ngi roy sëñ Tuubaa ca na mu nekkoon wala déet nga topp ko su la leeree ni kii dirt la sëñ Tuubaa waaye topp ko nee ko fa ñukk te toppe ko topp sëñ yàgg naa ko wax hmm. ma ne dégg naa ay waxtaan ka yu daa daanoog di wax loo nit ñi fii yëg naa li àjjana ngeen di mu nanga naam hmm. maa demal ba dégg saa bopp ñu ñu ni yëf yi fu mu toll nii ku yabu seetaat sa bopp nag xool fi ngay te tànk nag xool sëñ Tuubaa woote woon hmm. waaw ko dégg de waaw ma ne ah kon baax na ba may njëkk di wax rek ñu bari xamuñu lu ne dégg naa ko daa contre sëriñ seeg nag man ma aw sëriñ ni ngeen ko amee ndeysaan ah. kii ma ni mooy sama wasila sama dégg sëñ Tuubaa mën naa ni du ma siggi xool ko du ma siggi xool ko lu ma xool ci xar kanam ma ko sàcc xool ko. kon kuy gëm suñu baal waaye nag man du ma ne kenn demal yàllaa ngi noonu. Mhm. kii ma jébal sama bopp sax damaa maa yow ñaari njàccaar képp lan loolu ma ñaari njàccaar képp lan waaw. Mhm. nit ki na foofu la war a jébal tànkam. màggal Seexul Xadim gii di ñëw sëñ fa sëñ kii. Mhm. Seex Musaa. voilà ni ko war a waajal mooy lan. ñu delloo mbir ma ca cosaan la. ca cosaan la cosaan la. Cheikh mm-hmm. Moustapha. Mm-hmm. delloo cosaan la mooy la mooy nag Sëñ Tuubaa woote woon. Mm-hmm. bernde kenn mënu koo génne ci màggal gi. ak du lekk ak naan dong de. léeg sax ko ni màggal gi bernde la ma leen ci la kenn wérante wu ko waaye nag bu ko leeral lekk ak naan dong la ñibbi jaamu yàlla amu ci. Ah. danaan ma ngi ko. Ah, Sëñ Tuubaa ko waaye sëñ Tuubaa bëgg loola berne gi moom ñëpp dañu war a xam ne berne ndax sëñ Tuubaa moo ko tuddee ba am ah. kon dañ ko war a def waaye nag bu ñu topp berne bi rek na jaamu yàlla ga hmm. waxal naa ba tàyyi luñ mën di nekk Cheikh Moustapha hmm. bu waxtu yu jotee nan dem julli bëri na doog a del soit ca loola hmm. luñ mën di nekk laax nag waajtaay wi ñii ni ay kilifa ñi ni wooy ay kilifa dañuy dox ci wàllu waajtaay wi nañu gëmloo nit ñi leen fii jaamu yàlla mm-hmm. topp yàlla mm-hmm. dox li muy digle mooy li muy tere moo leen fi def mm-hmm. waaye bu ñu leen gëmloo rek seen poose bopp waaw koo yaakaar ne mën na dara nga fexe ko accueillir mu daal sa kër déedéet du noonu de koo yaakaar mën na dara nga accueillir mu daal sa kër borom loxo yu jot yëpp nga fexe ba daal sa kër ngir lan ngir ñu mën laa jàppale déedéet yow màggaloo sëñ bi est-ce que yaa gaay yi ci mbedd mi doo nga yem suñ tubaa du foofu. Hmm. seexul xadim. Hmm. du foofu. ak wér. waaw ah, sëriñ tubaa dañ koy dañ koy dañ koy gëm dañ koy wóolu dañu koy gëm dañu koy wóolu Seex Mustafaa. Hmm. ci premier safar bii la ñu war a commencé. li ñu war a nañ njëkk a waxtaanee mooy gore yi ndaw ñii ndaw ñii leen war a gën a indi ko fu dool yi. ndax fu dool jommal ñun ñëpp mooy ndaw ñi. moo la jommal kat. Mustafaa ndaw ñee la jommal de. man mii moo ma jommal. yow ndaw ñi nga gis xam na bu ñu màggee ci dëkk bi yow xaw ma foo koy waxe ah, lu day waral Cheikh Moustapha ak wér waay damay na ñuy woo ay kilifa hmm. jotaayoo ak ndaw ñi sax woo li waxtaan waxtaan woo xam ne ndaw ñi doon ngay woo maam sëbbu te tàkk si Moustapha hmm. Hmm. ci côté bu ne nga koy uppe côté bu ne nga koy taale leer na ndaw ñi ñoom nga gis ñuy jamante fu mu seen ki yaa ngi ni cant yi ñuy def cant goo fi dem ña nga takk seen ndomba yi di mbëkkoo ko du dara du leer. ay ndomba la yoo xam ne yées leen koy tudde mm-hmm. fu mu toll nii sóorat yaasin. Mm-hmm. boo ko bindal. Mm-hmm. am na loo cay boole. boo ko jambee boo ko naanee dangay doon am yesi. man nga koo bind tax am na loo cay boole boo ko takkee bu ma ko takkale fii léegi bu ab xeexoo amee fii léegi nga daanu. Ah. xam nga lu koy dindee. Ah. damay kos bu am alme teg ko sa sa bopp bi wala ma tekki ndomba waaw ah, waaw loolu de yow sas moom. loolu nag sëriñ si sax dañ ko war a baax waxuma laa nag gore yi koy jël. ok tekkiwul dara. ok nit ki nu mu xam rek jëfandikoo ko. looloo jar a wax. loolu yësi dong la. ca dug leer. mag ñi ak leer lañ yoroon daa dox ci siiñum sàkket daa naan am ñurug ñurugub café. Hmm. dañ ko daan bàyyi ba mu bax ba ñu naan ko. man mii di wax ak bay sama baay naan na ko. ca benn magam a ko hmm. ne ma sa baay teg nañ ci nu mu jàng xasida ba àll dikkal ko mu naan mu mu mu naan mu naan mu naan mu naan mu naan ñulug ba. Mm-hmm. mujj ko fenn genn kili nit la ko daal sama bis ba yéen ñëpp ngi di ko fekke mm-hmm. sëñ Mor Kara tudd léegi nag kon mag ñi foofu lañ tolloon di jox si sàkket di dox ci taal di joggi ma nga togg sa mbara ba tegg ñu joggi ci taal te du ko mm-hmm. yàllaa nekkoon ci ñoom waaye ñii koo ci laamu ndiggam li ci nekk ci ay ndomba mat na fukki kilo. loolu xam nga ne dug leer. leeral ndomba yuy léeg-léeg da leen di war. ñuy jamante seen biir ba ñàkk ba dañoo yor ay paaka spécial yoo xam ne jamantee lañ tax a jóg ñoom gone yi cant yii yëpp ngay gis moo fa nekk loolu na ci kilifa yi teel a kër diggante daaw ak ren fu dee boo xam gone yi dee ci jamante daanaka lu ëpp na fukk ci biir dëkk bi daa xam màggal ku tedd kii ñu yaakaar muy borom Daaru Salaam borom gaawaan ki nga xam yow amoo ku dul moom ah màggal gi daal doom am na ci dee tegu daaw ga a gisan nañu ci dee gone yoo xam ne dañuy def kuréel ca àll ba fa sori di mbëkkanteeg ak kii. barki démb dégg ngeen ko ci màggal Daaru Xuloos gii buntu kër Seex Rijaal. nga xam ne dégg nga déclaration bi waa kër Seex Rijaal daf nii ñu sunu yoon nëw ci wax na dëgg seen yoon nëw ci. waaw ñoo fa doon jaw sunu jox ba jam fa kenn mu dee. a yaatu ci dëkk bi. loolu yi nag yi ñoo ci mën a wax. jar nañu déclaration boo xam ne ndaw ñi doong la ñuy woo waxtaan ak ñoom. ndax maam déclaration yii ñuy def rek maam woo média bi def ba conférence de presse wala nangam ak nangam taxul ndaw ñu dégg la ndax ba koy def ñu am bëgg-bëgg ci rëkk bi ñoom ñoo lay déglu waaye gone yi moom ña nga ca dawal saret baak ña nga seen gees ba ni gees ak ña nga ca nangam nangam kon jar def de classe boo xam ne da leen naa yéen ndaw ñi xalifa bi moo leen soxla allahu akbar mm-hmm. nga xam ne moom yow amul benn mag boo woo wala benn jigéen ndaw ñi képp ngay woo mm. xamal leen lii ak lii ak lii ak lii la Seexul di bëgg defaat beneen déclaration boo xam ne jigéen ñi képp ngay woo. Hmm. mbir mu ne da ngay xool di def étape par étape étape par étape boo uppee bii taal doxewul nii nga uppee fee xëy na dina mos a boy. Hmm. waaye ndaw ñii ma gis ci dëkk bi Cheikh Moussa bu ñu màggee. Hmm. yow gis nga nga genn màggal gu jàll tax ndaw ñu changé. waaw kon nan xoolaat luy màggal nag. wax dëgg yàlla de. amul kenn màggal ko fi jàllagun ba ndaw ñu changé hmm. ah waaw lu lu xool yi wax dëgg yàlla de wax dëgg ah, yàlla ndax it euh, yaa oustaz euh, loolee nga xamante ni si moom la ñu wax rek euh, di wax kenn ku ci nekk nit ki bu fekkee ne da koo bëgg hmm. mbaa nga bëgg koo roy ah. mbaa ngay nemmeeku dara ci moom da ngay xool jëf jëmu jëf ba la mu ci am mm-hmm. nga xool loolu nga jëm koo jëf mm-hmm. wala it yow mi nga xamante ni si yaa koy yaa koy euh, taxawal lu ni mel mm-hmm. euh, di ko soññee ne mbir mi kat nii lañu ko bëggee euh, di ko wax di ko yaatal waaye dafa bari ci bis yoo xamante ni si daja ba la ca ëpp mooy waxtaane la nga xamante ni si rek moom mooy lekk yaak naan yaak Euh, yaa ca topp kenn ku nekk ne neex na ndax màggal gi bari na ci ñoo xam ne neexaay bi mooy lekk yeeg naan yeeg bernde yi 88 628 19 05 ma jëlee ko ci yoon wa euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum. ndeysaan rëcc na xam naa dina dellu siwaat ci 88 628 19 05 88 628 19 05 xañ na da doon tàbbi si ngir wax lu am solo ci lii nga xamante ni si rek moo war rawatina nag bu ñu duggee ci benn fanu safar fàttali kenn ku ci nekk mooy xutba yeeg sëriñ seek euh, kenn ku ci nekk say taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw di indi addiya ngir waajal ko màggal gi euh, jar na di leen leeral ndax it euh, képp koo xamante ni si yaa ngi ñëw ci màggal ak Touba sëriñ Touba wér na ni ngir lekk dong. Ah, eh, sant suñ borom tabaaraka wa taala bernde yi ci la bokk ndax mm-hmm. eh, sant suñ borom tabaaraka wa taala eh, joxe ay ñam mm-hmm. jël ci saw ñaq di ko joxe di ko berndeel lu am solo la waaye njàng ma ak it roy ca jëf ja nga xamante ni si moom la nekkee woon loolu dafa ëpp solo ndax dund ak Cheikhul Khadim képp koo xamante ni si yaa ngi koy bàyyi xel ñu la koy wax nga di ko dégg euh, sa xel ak sa euh, xalaat ak sa bëgg-bëgg lépp dina delluwaat suñu borom ndax euh, jamono moom lépp lu mu tombeel ak jafe-jafe bu mu tombeel bànneex bu mu tombeel lépp fob na ko dëxëñ ko ci mhm. liggéeyal suñu borom tabaraka wa taala te jaare ko ci seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam 88 628 19 05 salaamaaleykum kay mbokk xam naa bu ñu wàññee tuuti rajo bi rek ndeysaan waaw bu fekkee dugg si na tàbbi si na wàññi tuuti rajo bi rek euh, su ko defee mbaa bu solee rajo bi di déglu ci téléphone bi muy woote euh, dana ci am solo ci 88 628 19 05 yaa oustaz mu doon loo xamante ne si euh, li arab yay wax rek alxuluxu wa taqaluxu mm. lépp loo xamante ni roy la mm. da nga koy roy ci nit da ngay xool ca la nga xamante ni si ca la nekkoon tam njariñ nga nga nga nga wéeru ca mm. mel ni mel ni yow la xaj na mel ni Serigne Touba lu jafe la waaye topp ko day am solo parce que loolu moo tax ñu indi ko fi mu wan ñu yoon ñu topp ko jaar ci yoon woowu ngir mën caa jariñu waaye paaka ne damaa bëgg jariñu ci Serigne Touba nga xool yoon wa mu jaar nga jaar ci waneen yoon wa bu Serigne Touba jëmee ci penk bi yow nga jëm ca saw ba yaakaar naa ne <laughs> topp googu ngay wax ay caaxaan na ndax wan ko ginnaaw la mm, mm, mm. kon nag wan ginnaaw ki nga xamante ni si moom nga bëgg a roy moom nga bëgg a topp yaakaar naa doo ci jëlee benn njariñ bari na ci ñoo xamee ni danañ sonn ci mbir lool lool lool ci am njariñ mooy lan moo di fañ ko war a jaar fa lañ ko jaarewul mm-hmm. mm-hmm. màggal yeeg yépp ci bokkee ba ci cérémonie yi nga xam moom la ñuy wax dañ mm-hmm. dellusiwaat ndaw yi Sëriñ Tuubaa génn ci téere yi nga xamante ni si ca la wax ca ndaw ya mhm. indi ci ay bayit même buñ munta firi lépp mhm. indi ci ay bayit yoo xamante ni si ndaw yi danañ ko dégg mhm. ne Serigne Touba wax na nangam ak nangam ak nangam ci ndaw yi Serigne Touba wax na nangam ak nangam ci jigéen ñi ndax buñ jëlee lu ci mel ni Jawa Penda Diop am na loo xam ne ni digal na ko ñu bare bare bare ci soxna yi nag buñ jëlee li nga xamante ni si mooy ci mag ñi kenn ku nekk ni nga xamante noonu nga war a toppe suñu borom tabaaraka wa taala yooyu nga xamante ni si day am maanaam duñ fop bi yëpp am na ci ay bayit yoo xam ne mën nañ ko ci jukki kenn ku ci nekk jàpp ci ba déwén nga xamante ni si bu déwénee ñu jëlaat ci yeneen jukki teg bu ñu ko defee benn at ñaar ba ñetti at yaakaar na kenn ku nekk loola nga jàpp dana am loola jariñ dana am loo xamante ne si di nga ko topp ci yoon wi nga xamante ne si moom la ñu Sëriñ Tuubaa xalal man daal loolu dafa bokk ci li nga xamante ni saa su nekk suñu yee màggal rek foog mm. bernde koppar mhm. dugg na fi mhm. màggal gi ay nangami milliards mhm. nangami personne dugg nañ fi waaye ana njariñ la li nga xamante ni si moom mooy dellusiwaat ci ñi nga xamante ni si ñooy taalibe yi wala ñi nga xam ne ni ay soppe lañ ci kii nga xamante ni si mooy Cheikhul Khadim di nga Cheikh Moustapha loolu li nga wax daa mat a jàng te daa mat a bàyyi xel ay milliards oog taxul ñu def màggal gi waaw loolu état la concerné état bi ciy gàññe loo ne kenn xamu ko luy mat ñeenti téeméeri milliards xaw ma. Hmm. wala ñaar téeméeri milliards yu teg. Hmm. loolu sëñ bi loolu état la concerné. Hmm. ndax ñoom bu bëgg na fomm màggal Tuubaa ñu ne kenn du ko fomm. ak ñoom ñoo koy waxal seen kenn du ko fomm. ndax liñ ci war a gañ ñoom état. <laughs> mais ñun moom li ñu li ñu li war a jariñ. mooy li ñu sëñ bi digal. bernde sant le ko yàlla. wax bu doy waar la wax sant ko yàlla ci bis bi. waaw. as sikru wa sukru. waaw maanaam da nga ba pare doo ko mën a sukru. da nga koy fàttali ko moom yàlla ba pare doo ko mën a sant boo deful as dëkkër muy fàttali ko doo ko mën a sant moom yàlla subhanahu wa taala sukkur mm. du mën a mu mm. léegi nag ñu ni wooy ay kilifa ñu di leen siyaare ci bis boobu yii Cheikh Moustapha mm. ñoom ñu ñi ñoo war a xam li leen teg fi ñu fi ñu toog fi toog ñii la fa teg lañ war a xam mm-hmm. mënoo nga toog ci bis bu tedd bu mel noonu say taalibe ñëw jóge fu ne nekk ay kaar nekk ay biis am bitim réew fu ne ñu jóge fa ñëw di la siyaar ku joxe addiya nga taal taalal loxoom nga ñaana ko mu dem. Mm-hmm. du noonu. Mm-hmm. du noonu kat. Mm-hmm. ok ma jëli ko ci yoonu 88 628 19 05 salaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum. ndeysaan daa mel ni euh, jafe-jafe téléphone la ci wàllu réseau ba wala ca topp waaye mën nañoo insister rek ci 88 628 19 05 wala ñu def 88 628 81 08. Cheikh Moustapha. du noonu de. nit ki bu la siyaarsee te mm-hmm. am amaana am na ñoo xam ne mm-hmm. maam kañ la ni gis seenu sëriñ màggal ba màggal am na ñoo xam màggal yow bu fekkee taaliba bi mm-hmm. occasion màggal la am ba màggalu déwénaat màggal gii bu ñëwee te amul ab boo ko jox yow mi sëriñam kon loo doon ci moom ah, xam nga lan mooy a sayq muy sëriñ wax naa sayqul murabbi ah sayqul muraqi ah kooku moo am ak say sayku taalu bi moo jiitu mooy ki lay jàngal waaye nag murabbi bi mooy ki lay tarbiya hmm. ki lay tarbiya nag moo la mën a tasfiya hmm. moo lay taskiya tam moo lay tasfiya moo lay taskiya hmm. maa li ñuy wax ak taxliya rikk li ci yow lépp ci ay jikko yu ñaaw jikko yu bon dindi ko sa picc mu summi mu moomu teg ko nee daal di def nag taxliya allahu akbar ci maam. ndeysaan maam daal la róob solal la. ay jikko yu baax ay jikko yu rafet ay jikko yu tedd. ab sëriñ bu mënul lii mu bañ fee nekk moo gën mu nekk fi. du ngeen nañu waxante dëgg affaire du ngeen. Hmm. du ngeen laa wax. Hmm. du ngeen de. waaw wax taaliba yii dëgg. ni yéen yéen kat yéen a ngi ñëw di ma siyaar. Hmm. jëfoo jëfoo lu ma yàlla lu tax ngeen ma siyaar sama rajo maam dong nga tax ngeen ma siyaar. seexul xadim bu ngeen demee ni ngeen góorgóorlu ci jaamu yàlla. na ngeen def lu baax fu ngeen toll dee leen daw lu bon. ak yàlla dee leen liggéey. Mm-hmm. te bañ a yàq. surtout bu nekkee ci lii bu ngeen ma gisee mel ne yéen bu ngeen ma gisut mel ne maa ngi ci yéen. Mm. lii nag fu nekk ànduma ak yéen. ak wér waaye ab taalibe ab sëriñ lii lay wax ab taalibeem. wér ba tàyyi sëriñ naar jenn mu baax ma. Mm-hmm. ak koo mu sa mën a doon boo mu saa takk ak kenn booy ñëw mu koy dindi na dañ la lay wax boo takkee ab lam na dañ la lay wax moom sëriñ naar jenn yàlla yàlla yokk ay leeram ndeysaan maa ngi nettali benn benn waay bu daan wattu wattu yi nit laa ko ba hmm. mu tere ko ñaaroon bayul te ñetteel la ko ne bis boo wattu wattu lu mel nii dinaa la boole boobu mi te duut leen ko hmm. ab sëriñ foofu lay nekk nag mais yow nit ko xam ne bu nak see jóg alal mënatoo wax kii dëgg jëru ko nga bañ fee nekk moo gën nga defi waaw bañ fee nekk moo gën nga defi hmm. diggante boobu occasion la màggal Tuuba occasion la ci ñu delloo taalibe yi ci yàlla gone yi li ni li ni doy waar ak li ñuy màggal kenn ku ci ne da nga a dem sab sëriñ waaw léegi bu fekkee sëriñ sépp kenn ku ci nekk sab taaliba waar nga ko delloo ko ci yàlla hmm. ni ko lii ak lii tax yàlla andi leen fi hmm. su delloo dana bàyyi xel loola a ah, man kat sama sëriñ bii hmm. yam ma jaam yàlla kat dee leen julli dee leen woor dee leen dimbalante bu ngeen tolloo ci am asaka man koo génne na ngeen ko génne ku ci mën a dem màkka na nga dem màkka dee leen dimbalante na ngeen fonk dëkkandoo yi ngeen nekkal lu ngeen mën ci jaam yàlla di ngeen ko def lu ngeen mën ci lasara di ngeen ko def dee leen jàng alxuraan ah nga jël sax wirdu maxuus yi nga xam ne Serigne Touba moo ko farataa ci ñun taalibe yi nga jox leen ko fu mu toll bari waa na Serigne soo xam ne ay Serigne lañ te yoruñu wirdu wi te ñoo xam ne dañoo sukk jébbalu ci ñoom am ñoo xam ne sax boo leen ne damaa jël wirdu naa ndax ndax dañ ko mën a matale kooku daa mën a yóbbu fenn la lay yóbbu laa wax te Serigne ni yéen ñi jébbalu ci man yaakaar man Seexul Xadim digal naa leen sama wirdu wi ngeen ko yor muy wirdu maxuus ku ne mm. taalibe da nga ko war a jël mm. te da caa dafa ndaw ngay mag ngay góor ngay jigéen yéen ñëpp laa ko digal mooy werdu màqus wi boo doon wër fu mu ko fi werdu ñu néew lan léegi nag ñun ni ko bëgg a jàpp mooy nan ak taalibe koo xam yaakaar nga ni la gën a rafet ab jasneer gën laa rafet oto ñëw ci sëñ bi yëkkati enveloppe bu diis yokk ko sëñ bi ñaanal ko aajo faj na fajuwut ay duma mën na la cee daal ëllëg ak akbar hmm. Hmm. alxuraan moom ko leeral ba mu ne waftaxu ilayhi alwasila hmm. wasila mooy kan yaa alisina amoon ittaqullaha wabtaqu ilayhi wasila yéen ñi ni nee ngeen gëm ngeen yàlla ni ngeen ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla waaye na ngeen wut wasila wu leen àggale ci yàlla xanaa duma xool Moustapha Thiam mu jëm ca baaro manaaw ma ci yàlla ah, ah. xanaa duma xool Moustapha Thiam mu gën maa bëgg bànneexu àdduna gën maa bëgg jigéen gën maa bëgg nangam ak nangam nangam hmm. ma ko Moustapha ka yóbbu ci yàlla hmm. fet na nga mu mënta yóbbu laa wax yow Moustapha ak wér ak wér waay kon itam alxuraan waxaat boo demee ci yaakaar ne dama xamatu luqmaan la xuma am fa alxuraan waxaat ni wattabi sabila na nga topp koo xam ni na la leer kii moo la gën a jege yàlla. Mm-hmm. waaw ikkar boo xam na topp koo xam ne kii moo la gën a jege sëñ ba. Mm-hmm. ciw sant wala ciw askan. Mm-hmm. ikkar na topp koo xam ne kii naaw naam sa bii la ba la wax. koo xam ne leer na la nañu ne kii kat moo la gën a jege yàlla na ko def muy sa royukaay mu di la gindi de teg ci yoon. kon sëriñ bi màggal gi bu ñëwee. ñii ay sëriñ lu gàtt gàtt bu ñu jël rek taalibe ñu leen di siyaar ñuy ñaar ak tifli tifli yu gàtt yooyu muy Hmm. lu gàtt-gàtt doonte 10 minutes la na nga ko waar delloo ko ci yàlla bu dee daayira bu ñëw nga waar delloo ci yàlla daayira bu ñëw nga waar delloo ci bu sëriñ si yëpp defee waar leen ku delloo ni man de sab sëriñ waar na ma ñu waxtaane loolu ñoom taalibe yi ne ah man de baa ne sab sëriñ ah, de xanaa kon ñoo ko déggandoo man de sab sëriñ man waar na ma kenn man de sab ne ah neex na ba xara nga ñibbi loolu du dëgg du yoon Seex Mustafa wér na yaa oustaz comme noonu nga ko waxee mu doon loo xamante ni si lu wér la dañ koy nemmeeku saa su nekk ndax bari na ci ñoo xamante ni si bu ñëwee ba ziar seen sëriñ euh, kàddu ya du du du yaatu lool ndax it euh, nemmeeku ko sax ak euh, jataay ba nam war a yaatoo ba kenn ku ci nekk gindiku sëriñ bi wax ko fa mu war a jaar mbaa mu laaj ko ci lu mu nekk ndax am na ñoo xam ne dañuy gëj a gis seen i taalibe waaye du ñu xam ci lu mu nekk bu yàlla dogalee nag lu ni mel am ca jataay ba nekk mbaa mi ngi def nii mbaa ma ngay def nangam même bu fekkee dafa lay sax Euh, ba bàyyi euh, te te la muy wax du dëgg sax sëñ ba laataa muy jóg war na koo mën a fàttaliwaat li nga xam ne mooy santaane yi nga xamee ni moom la suñu borom tabaraka taala jaarale ci seydina muhammad sallallahu taala wa sallam euh, sëriñ tuuba àggee ñu ko ba kenn ku ci nekk la ma ca wax mu leer nañ loolee it nga fàttali ko sab taalibe nga xamante ni si bu fekkoon na ma nga woon ca safaan ba it tiit dana ko uh-huh. jot uh-huh. ba mën a seet bu demee xoolaat boppam daan ne ah man mi parce que gis nga yaaw saas man dama yaakaar ne comme par suma demoon ci sama sëriñ man ma nekk ci mbir moo xamante ne si tegul ci yoon mhm. ma ñëw mu laaj ma ne ko ne ma ne ma mbaa yaa ngi góorgóorlu ci julli mbaa yaa ngi mhm. jaamu yàlla mhm. mbaa mbaa yaa ngi dimbale nit ñi nangam nangam ma ne ko waaw sëñ bi man kay moom maa ngi góorgóorlu nangam nangam mu wóor ma ne li may wax du dëgg amut mais li wóor te wóor moo di Euh, su ma delluwaatee dinaa ah. xoolaat sama bopp dinaa ne la man mii ndekete damay tiit dama naan sëñ bi man ndekete ah, li may def lépp yëg na ko wala sëñ bi li may def ah. lépp xam na ko tiitaange googu may àndal dina tax ma daal di soppeeku euh, daal di defaat neneen noo xamante ne sii dana gën a mucc ay sama jëmmi bopp ji kon yooyu dafay baax euh, sëriñ bi di ko fàttali ki nga xamante ne sii mooy ab taalibeem saa su nekk kon loolu bokk na ci li nga xamante ne sii luy jëriñ aw askan la moom daal màggal gi nañ ciy fàttali li nga xamante ni si moom la Serigne Touba bëgg nañ ciy fàttali yoon wi nga xamante ni si looloo fi indi Serigne Touba ndax Serigne Touba ñëw fi rek par hasard ngir doon Serigne Touba ngir ne day liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ngir rek daal di dem ci géej gi ñëw ngir dem maa yomba ñu jàpp ko sonal ko fii fu nekk ñu dugal ko surveillance surveillée et cetera yoo xamante ni si résidence surveillée plutôt eh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen yóbbu ko ci bureau ba ca ndar eh, ñii naan ay eh, boole ko gaynde gi boole koog nag wi dugal ko ci ruq boo xamante ni si ba mu tegee tànk ba dafa sar ci biti yooyu yëpp ñuy wax coono yooyu mu daj kenn ku nekk war a ta war a xam lan moo tax mu def ko. Mhm. paaka da koy def rek ngir ñun li ñu war a def da koo def. Mhm. parce que bari na ci ñoo xamante ni si léeg-léeg nga naan waa saa yow doo góorgóorlu jaamu yàlla nga ne eh sëñ bi rek ko def na ko ba pare. Ah, ah. sëñ bi defal nañu ko. Mhm. Eh, bu dee aljana sëñ bi wutal nañu ko ba pare sëñ bi coono nañu waroon daj ci àdduna sëñ bi defal nañu ko. yow pour yow wóorootoo def dara ndax lépp sëñ bi defal nañu ko ah loolu nag ah. yow saas te ba mu koy def dëgg la ngir ñun. Mm. ndax bu doontoon ab der bu ñuul. Mm. ak li nga xamante ni si mooy jubbantiwaat askan wi dollawaat lañ ci yàlla. Mhm. du fi ñëw loolee nga war a jël xam ne. Mhm. moom dafa ñëw wan ñu aw yoon. Mhm. xañ na am loo xamante ni si yenul nañu ko. ngir yaatal yoon wi ñu mën caa jaar. waaye nag bu fekkee dafa yaatal yoon wi te kenn jaaru ci. kon kay ñun <laughs> euh, dana am gàcce yemal xiyam. ndax ubbil nañu ab bunt daan hee ñëw leen jaar ci fii. ñun nag ñu xool fa nga xam fa la lëndamee ñu daal dem jaar fa. kon gàcce googu nga xamante ni si moo ñu nar a dal suñu bopp. Mhm. Serigne Touba kenn ko gàccaal. kenn ku ci nekk loo def lu nekk yomal xiyaam sa gàcce bopp lay doon. ndax faral nañ di ko wax lu waay def boppam. xam nga lu ko waral la. Mhm. maam ñàkk woon ci dëgg rek coow li coow loolu dong la nit ñi nit ñi nit ñi da woo ci dëgg. Mhm. sëñ moom dëgg la woote woon sëñ bi. kon ne sa laneen yaa ne sa laneen ku ne salaneen hmm. yaa ne salaneen waaye sëñ moom ci ci nekkoon hmm. mag ñi mu yar hmm. tarbiye leen tasfiye leen ci dëgg la nekkoon ak wér mboolem ñu jamono sëñ bi laa wax ku ci nekk fa nga war a tegu rek nga tegu ak leer bi musta maslaa ci bon yi maam yenn yi mustee maslaa waaw yenn yi waaw àgg ci ñoo xam ne ci njaareem wax na ni na leen nañ leen ray ray sëñ Maam Mor Jaara moo ko wax ne ko ah Mbàkke rek ñu la fi ngir kii ndax réew mi daa am daa am daa am ko jiite hmm. ñun boo jamono ñu ni kan moo fi ñuy teñ tanoor muy ñii ne dama joxal ma ñii teñ tanoor ni leen attal bi saam daa seen kaw waaye est-ce que teñ tanoor dina rey kenn hmm. rey di ndax booba moom looloo ko ñor hmm. li ma bëgg wax mooy sëñ bi am na ñu mu génne sax laa génne ci këram ci ñàkk jàmm yàlla képp julli mbooloo dong am na koo xam ne koo féetee wàllu gan ñi benn bi sëñ bi julli. Hmm. bi mu sëlmee mu laaj ana diw ñu ni ko ñëwul. bi mu ko woowee mun ko maa nekkoon ci ci kii. sëñ bi ko ni demal faneen foo ko foo foo ma man sama kër kenn ku mën a julli julli mbooloo te te defoo ko doo fi nekk. Hmm. julli mbooloo képp laa de. ca xoolal nag ku tedd ku tedd ku mel noonu mu Seexna al Xadiim suñu yaakaar. ca yàlla. nga xam ne niiwul waay daa faat waxtu yi niiwul nangam waaye maanaam ñàkk gëm ñàkk ànd mbooloo gi loolu moo naqari si ba sëñ bi ko seeti faneen hmm. hmm. am na ñu def ñoo xam ne bi mu leen génnee hmm. nit ñee dem waxtaan waxtaan ak moom waxtaan ak ñooyee ni yéen bëgg na alxuraan bu ngeen bindee alxuraan yëpp ko dana ko dana ko jël mën naa mu jéggal leen nangam nangam ba ñooyee bindee alxuraan ñëw andil ko dafa jël alxuraan neen téere bi bi ku ma ko jox ma jël ko waaye nag li ngeen def sama kër moom tuma fi nekk ak yéen def sëñ def na lii ak wér waa léegi nag nga ni sëñ Tuubaa mii kat mooy saa maam sëñ Tuubaa mii kat mooy saa langam lim nekk woon li la ci intéressé nga te li nga xam ne enragé wala nga bax déedéet eh, du noonu nag mm-hmm. nit ki boo koy roy wala nga di ko dond ci mbir mm-hmm. da ngay boole téye lépp muy tàng ak muy mitti ak muy naaj ak muy ak muy sedd billaay wallaay nga ngay boole téye lépp ni ko katiw mm-hmm. téye ndonali ba mu dëgër këcc waaw comme ni ko Seex Muntaxa mii defe waaw da ngay téye ndonali ba mu dëgër këcc comme ni ko Seex Muntaxa mii defe ndeysaan yàlla fi yàgg te wér allahumma amiin yàlla na fi yàgg te loolu nag képp koo xam ne jiite nga fukki nit mm-hmm. nuu ni nga war a doxe mbir mi ndonali mm-hmm. ci sa loxo ba mu dëgër këcc Cheikh Moustapha mm-hmm. mais yow tey ci misaal segam man Moustapha Thiam damay campagne a oki taalibe am ñoom dañuy campagne taalibe man lépp dama koo gis <laughs> campagne ay taalibe diw maa ko ëppale taalibe euh, maa ko ëppale taalibe am xaalis kii ni diw maa ko ëppale taalibe yu nangam kii ni diw maa ko ëppale taalibe yu nekk bitim réew kii diw maa ko nangam nangam léegi wax naa ko fii kara nit ku mm. fekkee jóngantootoo ci ragal yàlla jóngantootoo ci ci diw kat jaamu yàlla ñaata rakaa lay neef la guddi diw alxuraan naat naam la koy la ko la koy wàcc ci guddi gi diw nangam ak nangam léegi ñoom jéematuñoo jéematuñoo maam rawante ci loolu mm. waaye liy rawante mooy ma seetee Moussa Thiam sa oto bi ma war laay xool ba xam moo sama marque ban moo gën a seer bu fekkee marque Moussa Thiam moo gën a seer sama marque oto bu subaa damay jaay sama oto jënd boo xam a seer Ah. sama kër gi R plus e, eh, maam ab terrasse rek la. ma dem Moussa Thiam ma gis ko mu wàcc ci R plus 2 hmm. hmm. ma ne ah, lan moo tax man Moussa Thiam mii di am R plus 3 te kii léegi ma ñëwee damay a di wax taal bi wala wax ma sooy ni yéen léegi damaa bëgg kër gi ñu tegaat ci kaw tegaat ci kaw. léegi yow xoolatoo ñu mag ñi daa rawantee ñoom ci jaamu yàlla ci jàng alxuraan ci naafila ci nangamu nangam ngay rawante ci loolu xalaat ji yoo xam ne taxuloon sëñ Tuubaa jóg. ak wér ak wér waa ji de ak wér yaa. àddina taxuloon Seexul Xadiim jóg lépp lu mu fi am da koo أقبلت الدنيا إلا قبل وبعتها فسال عن القبل وبعدها أقبل وإني أقبلت لله وأبقى مني loolu sëñ Tuubaa wax. Hmm. nañu waxante dëgg. wér na nañu waxante dëgg. Seexul Xadim nekkul foofu. ak wér. àddina li bëri wut si ma. Hmm. ma ne ko soxlawuma la. yàlla ba mu jëlee ay jéngam bëgguma jéngam damaa dagg ko dem. ak wér. mu ne lu ma am ci àddina rek naa leer ni lu may masaa la waaye du lu ma bëgg man. Hmm. dama koo bàyyi des ak sama boro subhaanahu wa taala waaw ku mel noonu dama koo roy mooy sama maam mooy sama nangam mooy sama nangam ci ban ci ban côté war na ko ñu gis am na fii ñoo xam ne bu sëñ Tuubaa del seedum soob ab jotaay waaw macha allah waaw ay gàcce nga laa ma ay kilifa yoo xam ne bu sëriñ Tuubaa del soon du soob ab jotaay ñoom ndax te leen war a nekk rek lañ nekk mm-hmm. Mm-hmm. bari nañ fi mm-hmm. waa am na ñoo xam ne coolee baree ñàngali waaye bu sëñ bi doon bërët ñu gis gisaat ko fii ci saar ñun ñëpp billee du mukk ci àdduna doo gis mukk ñu jóg dem di ko nuyu ji. ca sëñ ñun xam na li xaw. ca taalibe yi ay xel lañ am ñi seen bëti woom yi di sukke seenu xel sukkawul noonu. seenu xel sukkawul noonu de. la ma waxat gër kilifa rek. Ah. ok ma jëriwaat ko ci yoon wa 88 628 day mel ni euh, egsi na asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. delloo siyaar Ndeye Guèye la guy ñànk waaw ah, soxna Ndeye Guèye ah, siyaar na baax ñu ngi leen di siyaar bu baax di rafetlu waxtaan wi jërëjëf jërëjëf soxna Ndeye sax Moustapha it siyaar nañ la lu bëree bëri macha allah am na solo yàlla na ko yàlla nangu yàlla na bu baax a baax jërëjëf am na solo lool wax dëgg yàlla macha allah jërëjëf soxna Ndeye ndeysaan ndeysaan Eh, jaajëfal ko soxna Ndeye Guèye. foofee ca Touba Ñànka. guy Ñànka guy Ñànka waaw mm-hmm. mm-hmm. eh, rek la ñuy ziare it eh, soxna Faama Touba. Mm-hmm. moom it Diop foofee ca Touba Njaareem. muy muy Daaru Minam 3. daa mel ni moom lañ ko tuddee léegi. mu doon lu solo macha allah noonu lañu ñuy ziare koo xamante ni si yaa ngi féete foofu yaa Oustaz. wallaay ndeysaan soxna Ndeye Guèye guy ñànk mhm. ku bëgg émission bi la de ak wér waaw émission bi ak émission xew-xew jamono bi da bu baax a baax a baax wér na ndeysaan bu baax a a baax keroog keroog sa rek mi ngi koy mi ngi ko doon ngi ko doon leeral bi bëgg bis bëgg émission bi la soxna Ndeye yàlla xam na ko ak wér ak ah. mhm. mhm. mbir yi fañ koy sóono ak nekk bokkul de lii may wax nag. Hmm. ñu teel cee yéen nit ñi ba ñu xam lan mooy kilifa. Hmm. ak lan mooy taalibe ak nangam nangam dafa dafa baax. dëgg la yoon yi ñu ko bëgg a paraj parajee rek baraj baraj kenn ko rek sa intérêt bopp rek paraj loolu moo dul yoon yi. Euh. yoon yi day yoon woo xam day côté ilaa xiyaami san. Hmm. yoonu murit. Sëriñ Tuubaa boo demee ci xaatimatu munaajaati bil xatti. nga xam mooy xasida mu mujj bind. mu mujj bind ci njaarim. dafa wax ni ki bind lii. dana dëkkaale ak boroomam. Mhm. ñeenti téeméeri at. yoo xam ne day daf fa di jalb. allahu akbar allahu akbar. ñeenti day daf fa di mhm. kon sëñ Tuubaa ma ngi fi. demul fenn ma ngi fi. leer na ah ah ah, ah. loolu leer ah, bind lii la mhm. wala di dëkkaale ak boroomam. fii ak ñeenti téeméeri yoo xam ne day daf fa di jalb. ak leer. boo demee nga ne téeméeri at sax matagul. waaw <laughs> kon nag yaakaar naa ni. seexul xadiim moom. kooku kooku kaneen la kooku laneen la. Mm-hmm. kon kuñ lay tudd ko tudd war naa am noo taxawee. Mm-hmm. waaw loolu mu mu naa ñëw ma ci kenn. Mm-hmm. allahu akbar. allahu akbar. ndeysaan. loolu mooy mbir mi. mu am solo lool. loolu moo am solo si am sa mu mel ni nag waxtu ba moo ñu xoj. mu mel ni euh, DJ mi ngi ci euh, biti di xaar. Mm-hmm. ndax waxtoom yi sax am na luñ ci jot a cof. Euh, ndax li nga xamee ni moo nekkoon jotaayu daayira yi. mu mm-hmm. amoon solo. mu mm-hmm. amoon fi daayira boo xamante ni si di waajal bis bu am solo am nu mu defoon ak waa commercial. ci jàppandal gu leen coom commercial jàppandale. ba ba seen i mbir mën a jàppandal. ci li nga xamante ni si rek mooy bis yi nga xamante ni si moom mooy xew. waa commercial it ubbi ay buntam. ngir ngir yaatal mboolem koo xamante ne si rek am nga yéene. Mm-hmm. ngir rek lépp loo xam ne xew-xew la. Euh, ci waajal màggal gi. Mm-hmm. boo fa jaaree rek ñu yéwénal la ko. am nuñ def ak yow ci ci ci lu yombit mm-hmm. ngir nga mën a teew yaatal sa liggéey wala it euh, ñu fekk si la. ca na nga ko bëggee waneen la ko ci télévision bi àdduna wërngal këpp di ko mm. di ko seetaan mm-hmm. ehm, jaarale ko ci rajo bi it mboolem koo xamante ne si yaa ngi ci diwaan bi eh, ba Daaru Moxti ba Kolobaan Gosaas mbaa ba mbaa ba fëy nga xamante ne si moom mooy Gosaas ba Daaru Koso waaw ba dëkkoon waaw gis nga mu ngi koy am mu leer nañ waaw muy muy yaatu lool ah, sori lool nag sori ah, lool ah, ba ñu baree bari di ko di ko déglu ndax man ñi dafa léeg-léeg am ñu may woo fañ dëkk buñ ma waxee ne man rajo rajo bi lañ doon déglu la ah. ko doon seetaan ñu ne ma déedéet ah, ko ci ah, télé bi mais dañ ko doon déglu ak rajo mu ma lool euh, moo taxit euh, ñu yaatal ko képp koo xamante ne si rek euh, bëgg nga lu ni mel it boo jaaree ci commercial bi rek incha allahu rabbi danañ la ko mën a yaatalal ca noonu nga xamante ni si rek noonu lañ ko bëggee man nga xam ne ngi koy seetaan te sori it buñ ko bëggee mën nañoo jaar ci numéro bi nga xamante ni si moom mooy affiché saa su nekk su ko defee rek loolu yaa oustaz xam naa waxtu wi a xocc na Cheikh Moussa kii rek nga daal di def na nga daan def waaw man de Cheikh Moussa mm-hmm. maa ngi ñaan de moom mm-hmm. ñi nga xam ni comme ñi bëgg sponsorisé waaw islam ak jamono bii émission islam ak jamono mm-hmm. maa ngi ñaan sponsorisé ko waaw ak émission xew-xew jamono te képp koo sponsorisé doo ko rëccu ak leer leer na ndax dafa bari ñu koy bàyyi xel damaa leer ma ci am lu wér jéng ni waxuma ne biir réew waaye bitim réew rek dafa bari ñu ko bàyyi xel hmm, caaw saas mooy xew-xew jamono hmm. ak lislaam ak jamono hmm. kooku moom ñu ngi tàllal loxo ñëpp képp ku bëgg a sponsorisé émission bi émission lislaam ak jamono ak émission xew-xew jamono boo wootee ci service commercial bii ci Baol Média da nga leen jot ñu waxtaan ak yow boo ñu wooyee ne suñ numéro boo ñu wooyee leen waxtaan ak yow incha allah muy émission xew-xewu jamono. Mm. ak lislaam ak jamono ma Moustapha. Mm. Mm. képp koo bëgg a sponsorisé daal. émission baa ngi noonu. ndax ñi ñi ko ñi ko koy déglu laa bay moo tax ma ne ku ko sponsorisé doo ko rëccu. doo ko rëccu Cheikh Moustapha. Mm-hmm. léegi nag euh, fi may tëjee. ginnaaw DJ ma ngi ñuy xaar. Mm-hmm. li ma la waxan ci njëlbéen gi rek. Mm-hmm. dafa am xam nga laata tax alul sa en bi xayri isni. fan is du sartun fii xabul sa en bu leen def dara ci lu dul ndigal. ak ndigal. mooy lépp. waaw. léegi sama garab yi émori yii may joxe. waaw. ak estomac yu jëm ci yu mel noonu. waaw. góor gu tële maa néew kattan. Mm-hmm. ku mën a doon laax nag. Mm-hmm. waaw ah. waaw. yooyu yi dañ ciy am digal nag. Mm-hmm. ndax dafa am génn kilifa goo xam ni nekkoon na xalifa général de Mouride du ma tudd turam. daana wax ne doon sàkk menn métier. métier ñaan lay doon ngir li ci nekk ci ab jaam. ak suñ garab yooyu nag ñiy laaj mm-hmm. naan ndax dañ ko stocké fenn déedéet mm-hmm. loolu moo tax sax ma bëgg mu leeral ko fii mm-hmm. garab yooyu stocké ko fenn ñun fekkee da ngaa émori wala nga siti wala soppiis wala niiw kartan maam feebar sexuel bu mu a doon dañuy waxaale bu jubboo ñu toggal la garab jox la nga yóbbu bu jeexee nga ñu toggalaat la togguñu suñu garab yi ko stocké Hmm. ndax loolu dafa am lu bari man a jural nit ki hmm. moo tax duñu ko def hmm. dañuy togg jox la nga bu jeexee nga woñ téléphone ñu togg la day bari ñu koy laaj comme ni muy demee estomac nag moom sunguf lañ la ci jox boo xam ni koy jël suba gi ak ngoon gi muy lu ñu liggéeyee suñu bopp suñu loxo bii nga xam ni du lu ñu jëggaane fenn xool ko itam ba amul benn conséquence boo xam dina la yàqal dara Cheikh Moustapha loolu itam dafa matal a bàyyi xel ndax dafa am ñu nu koy laaj Mm-hmm. nan la garab yi di doxee loolu moom ñu bàyyi ko xel. Mm-hmm. ñi nii laaj itam ci wàllu listixaar. Mm-hmm. listixaar 2000 lañ koy defee sa tur lañ soxla sa yaay jeex na. waaw sa tur sa tur yaay jeex na. waaw. ba ci am ndigal nag ñu bari yàgg nañoo bëgg ñu mën di ko waaye nag loolu ma di gis da nga dem am ca ndigal. am naa ca ndigal. incha allahu rabi képp ku jokkoo ak ñun ci 76 397 75 60. 76 397 75 60. wala 77 823 33 77. incha allahu rabi leen la wax ni ñu ciy doxalee. macha allah incha allahu rabi. Mhm. si am fa. waaw kay am na solo yaa oustaz ci euh, loolee nga xamee ne ay leeral la euh, jëm ci euh, wàllug ñaan ci mm-hmm. ndimbal kenn ku ci nekk yaakaar na lu oyof lay doon 88 628 laataa ñu yëkkati jataay bi ñu jël kooku salaamaaleykum wa rahmatullah waaw waaleykum salaam wa rahmatullah. jamil ñi ñu ngi leen di di leen ziar de. ah ça ça yi namm naa la de. wallaay wallaay wallaay maa la raw macha xam naa yow nag dañoo gëj a. jokkoo ci kii bi loolu leer na talaata bi laay xaw ëpp li may yem nag. ndeysaan wax nga dëgg wax nga dëgg. ndeysaan àjjuma bi léeg-léeg rarement la may xaw a fekk Touba maa ngi leen di ziar bu baax. jërëjëf jërëjëf yàlla na ko maa ngi lay ziar macha allah. waaw Seydi Jamil ñu leen ñaanal daal seen jàmm yàgg. amiin <laughs> amiin amiin waaw di wax ne bi moom wax dëgg comme noonu ngeen ko waxee rek ñëpp a koy déglu de moom yàlla xam na ko. ku ko sponsoré doo ko rëccu de. ndeysaan ndeysaan mm. a wér a wér yàlla xam na ko ñi koy déglu bëri nañ torop torop torop wax dëgg yàlla. ndeysaan ndeysaan jërëjëf. waaw ndax kuy dox daal ba yem ci moom. Mm. moom doo jàll doo sàppe doo jàll da mm. <laughs> da ngay toog déglu ko ndax dafa am solo. <laughs> waaw ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax. yàlla yàlla na ko sa boole di ko seet. wallaay ndeysaan ah, ah, ñu ngi leen di ah. ziar baax a baax yàlla yàlla na ko yàlla wa en tout cas daal fi nga dooree woon daal foofu la doon bëgg a dikkee rek mooy mbiru Seydina Ousmane Sonko. Mm-hmm. Mm-hmm. waa di wax ne ceetaan gi de ëpp na lool ci wàll mm-hmm. yëpp nag. dëgg yàlla ceetaan gi daal ëpp na. te man li ma jaaxal Ousmane Sonko nit ku baax la. yàlla xam na ko. ku jaxasoog moom ku ko xam. xam ne nit ku baax la nit ku ñàkk problème la amul benn problème nit ku baax la. xëy na ki mu jàkkaarloo rek moo doy waar muy euh, Macky Sall. waaye ceetaan gi ëpp na. Mm-hmm. ëpp na lool te Ousmane Sonko man xam naa ko xam goo xam ne di dellu ginnaaw. Mm-hmm. li muy sàkku it nekkul lu jafe. Mm-hmm. parce que defal nañ ko fi ay politiciens ba tàyyi ñu jàpp leen. ñu leen di tibal ci seen kër. di leen andil seen bool bi di jóge seen kër. defal nañ ko Idrissa ak ñeneen ak ñeneen. kon waruñ ko koo bañal. déedéet déedéet comme wóoluwu leen te am na ci droit. ndax alxuraan neen wala tulqu bi aydikum ila taxaluka am na ci droit. Ah. ne duma lekk seen bool. Hmm. kon nag ñu koy moom bañ ta lekk de. waaye bool biy jóge ci foofu. Ah. la wóoluwut. Hmm. Hmm. to alxuraan wax neen ne wala tulqu bi aydikum illa taxaluka kon li muy laaj yomb na. Ah, léegi kilifa yi kër diine yi bu ñuy seetaan Ousmane Sonko ba mu faatu. te ay ah. fana ci des yu néew Ousmane Sonko bu fekkente ni ñii teguñ seen sànq. danañ danañ ne faatu na. am néew la ñuy jox. lii may wax lu ma xam la. bu ñuy seetaan léegi bu Ousmane Sonko faatu kër mm. diine yi. Mm. nan la ñuy mën a yónnee délégation dem naan dañ koy jaale. nan lañ koy defee looloo ma jaaxal maa du fii du bitim réew kenn waxut waa CEDEAO kenn amul kenn koo xam ne addu nga ci mbiru Ousmane Sonko ki ci jàpp biñ ko jàpp ak nii mu demee mhm. ak ci lott gi mu lott mhm, mhm. kenn kenn kenn kenn adduwu ci ñu xaw koo ci seetaan nii man gis naa ne kenn rek moo mën a libéré Ousmane Sonko muy peuple mooy askanu Sénégal ñoom ñoo ko mën a libéré waaye du président Macky saal mi moom ku ne xam na ne du dellu ginnaaw moom ñi mu àndal nii wallahi adduna moon ta neex ba ñu dellu gannaaw mm-hmm. ñi war a ñaan ñoo war a am xel ñaan mm-hmm. xam ne actuellement yëf yi garaaw na mm-hmm. garaaw na garaaw na te bu defee ay fan yu néew ak néew lañ ñuy jox nañ ko wax rek noonu la amee kon nag jot na kilifa diine yi ñu wax balaa faatu fii ñu yónnee ay délégation yu kenn xamul ku nekk di jaale ka defee affaire te nit dong la nag te lii mu wax ŋànk ko ba àdduna yi tukki du ci dellu ginnaaw bu fekkoon ne. Mm. dafa bañ carrément ne du lekk ñi mën a wax ne grève de la waaye koo xam ne xëy na bu ñu ko joxee boolu këram dana añ. Ah. loolu koy jafewul. Mm, mm. mais buñ ko seetaanee ba mu faatu nag léegi après. allahu akbar doy na waar lool. en tout cas lu métti la. waaye nag moom yàlla baax na. man jot naa ne ku mel ni Ousmane Sonko ak ni ñu ko xamee ak sell gi. ah yaakaaruma ne de suñ borom dina dina dina mu méttee nii ba mu faatoo nii ci ci ci ci Mali faro. te bu dee président Macky Sall rek moom man moom awma ci moom benn yaakaar awma lu ma koy ñaan. awma lu may wax moom. seqatuma moom lenn lenn lenn kooku dama koo bàyyi. complètement ak ñi ko jege billahi. dama a dama ne woon wa inni illaa la amilu la waa ji benn xadis waaw ah ah bañ dem waaye nag dañoo xam ne rek aduna ah, ah. amul solo nañ toog rek jàppale ah, suñu waay ba ci kanam waaye ñi moom awma lu ma leen di ñaan ndax mosuñu leen ñaan dara bu ñu may ñu ko allah akbar nañu dellu ginnaaw bàyyi li ñuy def Ousmane Sonko nit ku baax la billaahi ku sell koo xam ne ku jaxasoog moom xam ne kii rëy gunóor sax mënu ko xëy na nag ni mu doon bëgg a jëflante ak Macky Sall loolu wax dëgg yàlla askan wi ñoo teel a dellu gannaaw rek waaye bu fekkoon ne dellu woon gannaaw kon li ñu bëgg am nañ ko bu yàgg mm-hmm. nan ñu ko bàyyi kilifa yi ku mën a wax bi yeboo wax. Mhm. balaa faatu ñuy jël ay délégation di yabal ak yu di def yu kenn xamul. Mhm. tey tey tey am na ñoo xam ne nii xoolal ni ko nit ñi rek maanaam bari na ci ñoo xam ne comme ni ngeen def nii sax léegi defatuñ ko ñëpp daal dañoo bëgg fàtte ko carrément. Mhm, fàtte ko complètement te loolu warut mën a nekk. loolu mënul nekk. en tout cas daal moom li may wax mooy. ah ku ci mën a wax na ci wax. wallaahi. waaw nañ ci wax ndax peuple bi kese rek fi mu ne ni ñoo ko mën a ñoo ko mën a ñoo ko mën a waaye du Macky du du du du kii te man jot naa ni ñu war a wax fi ne duñu wax mi ngi mel ni yëguñu mm-hmm. ñëpp mel ni ñu ne ci pat uh-huh. te affaire bi dafa garaaw uh-huh. dafa garaaw nekkul lu ndaw dafa garaaw fi camp bi mu toll nii moo garaaw yàlla xam na ko mm-hmm. wallaay mais nag ah. man gëm naa ne suñu borom du ko seetaan ndax wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku baax la ku baax nag te boo duggee ci ak njabootam laaj leen di nga xam ne kii du du du nitu fitna amul benn problème ku mën a fas la ku baax la mm. waaw nañ ko bàyyi mu dellu ci ak njabootam nañ ko bàyyi loolu la ñuy wax nañ ko bàyyi mm. Macky Sall nag moom man moom bu dee moom moom awuma lu may wax moom waaye xam naa sax moom am na ay nit ñoo xam ne tey tey tey mm. bu ñu sañoon Ousmane Sonko moom mooy loolu wallaay lasim te fii lañ hmm. nekk ci réew mi man wax dëgg yàlla réew moo xam ne lii moo tax da ngay dem ba yow nekkul jullit sax fi ne da xalaat daal ndax lii ñuy def nii lii yàlla nekkuñu ay jullit sax duñ ko def ñoom seen lépp seen ak ak yelef dañ koy def mais ab jullit nan lay mën a defee yenn jëf yi hmm, hmm, daal doy na waar wallaay lasim doy na waar lool yaa oustaz xam naa fi ngeen dugg moom moom laal na ma lool tey dama xool fees na ah, ba mënu ma woon dugg waaye dama ne faaw ma jéem a dugg rek waaye ceetaan gi daal metti na lool seetaan gi metti na lool waaye nag yàlla baax na ñu ngi leen di sant di leen gërëm baax di leen ñaanal yaa Oustaz incha xam naa passe taxi bi dina ñëw <laughs> ñu ngi nuyu baax a baax seex bi eh, suñ caam Ibrahima Mbacke nuyu baax yow di la jaajëfal rek jërëjëf ah. Sidi jërëjëf Sidi di wax ne wax dëgg yàlla seen émission bi mm-hmm. billaahi wallaahi buñ koy déglu dañuy dañuy am mbégte lool yàlla xam na ko parce que ni muy toftaloo dafay dafay dafay am solo eh, te fi ngeen di rek foofu la soxla nañ ko lool waaw te bu fi jóge tey daana dundi lu bëree bëree bëree bëri ci suñu dund moom lu bëri sax man du ko nëbb moom kon nag yàlla ñu ko fi yàlla bàyyil soxla nañ ko lool dëgg yàlla man booy gis yëf ni muy doxee sax moom da ngay waaru ci yàlla. Hmm, Sidi. waaw sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax a baax. jërëjëf. sëñ Sidi. ndaysaan rëcc na xam naa ci téléphone ba mu doon dégloo ndaysaan mu doon lu am solo macha allah ci kàddu yooyu nga xam yëkkati na ko euh, ndax li ko waral rek xam naa dinaa ci delluwaat tuuti sax ndax romboon nañ ko mm. waaye dafa indiwaat lu am solo mm. loo xamante ne sii xañ na mm. euh, comme li ma li nga doon wax rek euh, ca ba ma naan la am na ci ñoo xam ne lislaam wax na ci ci maanaam ah, diw ah, diw moo ah, moo def moo moo def nangam diw def nangam diw def nangam fekk demewul Euh, muy li nga xamante ne si moom la ah. ñuy moom la ñuy euh, dëgtal ci noppi nit ñi. Mm. Euh, dafay def grève de la faim. Mm. fekk waxut loolu. maanaam lu mu doon moo di ñoom lañ ah. koy jox mm, muy lekk. moom la wóolul parce que jàpp na ne ñi dañ koo nar a faat. ndax tante nañ ko tanteeti ko. kon bu ñëwee dina mu ne sama lekku kër su ngeen ma ko mënee indil. ma di ko lekk ñu ne ko duñ la indi sa lekku kër. Mm-hmm. kon loolu mooy li mu wax muy jafe-jafe joo xamante ni si. ku ci nekk rek bu amee. xañ na ñoom ñoo ko tey ndax kenn ku nekk am nga droit parce que fii nii nag ah, ah, fii nii nag ñi ñi ah, fi ñi fi jàpp dañ leen indil añ seen kër dañ leen di indil dañ leen indil añ bu ñëwee ñu saytu añ ba xool ba xam wax dëgg yàlla kenn ku ne am nga droit ne sama lekk kër bëgguma lii loolu moom kenn bëgg bëgg bëgg bëgg ak couleur ñooyam dafa verte dafa verte kenn du ci werante lii laa bëgg kenn du ci werante ndax kenn ku nekk sa bëgg-bëgg am na loo bëgg am loo bañ oh, rawatina rawatina mu ne sama lekk sama kër laa bëgg bëgguma li ngeen may jox ndax wóolu ma boo nekkan tey kaso ba yàgg nga bëgg nga bëgg tabac cigarette wala waaw dañ la koy jëndali li lii nan ma jëndal cigarette loo bëgg si yaa bëgg cigarette waaw dañ la koy jëndal seen sax mm-hmm. man gis naa ko bi mu nekkee kaso li itteem yëpp mooy jënd ko kii acca ñu jëli ñu jëli ka ci yoon 88 628 19 05 salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah yaa oustaz Cheikh Moustapha kilifa gi ñu ngi lay jaar bu baax a baax yaa imaam oustaz Mbaye Ndiaye. <laughs> waaw ñu ngi siyaar baax ku baax. <laughs> ñu ngi siyaar baax maa waxtaan wi day am na solo ma. wallaahi sëñ Modou ñu ngi lay siyaar bu baax. Mm. ah def ngeen li ngeen war a def de. Mm. parce que borom xam-xam. Mm. su am réew yeggee ji fu mu war a wax dafa war a wax. Mm-hmm. te oustaz eh, réew mi yegg na foo xam ne nii même bu doon keneen jàmbur la sax. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah. wax wax dafa wax wax dafa war. Mm-hmm, mm-hmm. ndax koo xam ne ba mu jekkoo yaa ne ko woon bàyyil. Mm-hmm, buñ ko jekkoo war ngaa taxawaat ne bàyyil. waaw dinañ ko bàyyi. man nag damaa jàpp ne. Ah, xëy na mbir mi day day day baatin. waaye man damaa jàpp ne baatin bu daan ah, maanaam yu ni bu daan am. mag ñi fi nekkoon bu ñu daan def baatin itam daani def saayir bañ xam ne teg nañ dara suñ loxo. waaw mel ne maam Abdou. waaw waaw. ak sa Abdou day am lu mu def ba pare ndax ku ne xam na ne saayir moom balaa mën a dox day ànd ak baatin. waaw. waaye daal ak lu mën a xew daal ah bu doon ab jàmburub yàlla de man de ci diggante bi gis naa fi nit ñoo xam ne mosu leen a neex. waaye diggante bi yërëm nañ ko fi ba ba di ko def estati ak profit waaw waaw non ku yërëm da nga ko yërëm daal li ma li ma mën a xam daal mooy ku yërëm nit da nga ko yërëm waaw moom daal doy na waar te nag lépp diw daa bëgg nga bëgg rek ah, ah. yow bëgg a aar sa njaboot ndax xëy na def nga tooxi doona wala sa njaboot bokk nañ ci aw njombe uh-huh. ndax nga ne diw mi bala fee ñëw ma faagaagal ko wala képp ku mu ànd ndax lépp bañ comme yow euh, bañ nañ ko ba diw mii sax ku taxaw sol yërëm sax nga jàpp uh-huh. vraiment man jàpp naa ne war ngeen a ñëw nag bis benn bis ci histoire Firawna mhm. ak yeneen buur yi meloon ne Firawna ndax daan nañ dundee comme nii ñu dundee ci Sénégal. incha allah incha allah. waaw maa maa maa ngi nuyu kenn waajoo ju génn léegi nag. vraiment mm. jàmbaar la Sidi Jamil Sidi Jamil ndeysaan. am na fasaxa am na jaaba yal na ko yàlla sàmm. Mm. macha allah defal ko jàmm. di leen di leen ñaan tam suñu borom sàmm leen sàmmuñu rek xam ne àdduna moom képp ku nekk ci dëgg sa bakkan mi en mais dund moom boo jàppee ne àdduna du lekk ba suur wala naan ba màndi wala tëdd say soxna wala yooyu rek nga xam ne suba man ngaa tege ci raatal mu saaxi nga xam ne loo fi dund baan euh, bénéfice. Hmm. ñun day sëñ bi moom. Hmm. kii ñu yaakaar Seex Musaa hmm. kii ñu yaakaar Seex naa moo am 30 lan. 33 Mm-hmm. ah. Mm-hmm. ci ci ci ci ci ci ci kaso mën naa ci kaso la ko am rek. ndax ah, amatul liberté. amatul liberté waaw ah, fanweeri at ak ñett ko am te amoo liberté. Mm-hmm. sàggantuma ñun ñii di ay sogadeere nit. waaw fu mu toll nii bépp murit moom bu la tëjee dañ laa danoo delloowaat ca ca kii ba rek. maanaam li ñu wax danoo delloo mbatt ca ca Ndaala. ca Ndaala waaw ndax ki ñu ki ki la jaral ki nga yaakaar adduna ak alaaxira fanweeri at ak naa nga am na ko yoo xam amul liberté taal. bëgg ñëw ci dëkkam bi mënut fexe ba ba ñëw fi. te moo gën a leen bu amoon luy bëgg ci adduna naa moom la bëgg kon feex mu nit ki li am solo mooy nekka ci li nga war a nekka ci dëgg ku la mën a not ku mën a doon ci kaw suuf laa ku mën a doon not la rek ci not yii bis dana ñëw ñu takk ay tànkam takk ay loxoom ciital mbaggu di jooram wala loxol di jooram ci paxum bàmmeel di ko sotti suuf te du wax du jóg du yëngu du dal ñu koy nappaaje ak di ronkas ku mën a doon laax rek kenn laaj sëpput mm. kon nag ku fi nekk nekk fi dëgg dox ci dëgg dox ci njub. Hmm. ku mu nekkul dëgg itam xanaa àdduna ji rek jaay la ba koo bëgg a tëj tëj koo bëgg aywa. na doon yaa oustaz rek lañ lool. amoon nañ yéenay yéenay gën koo yaatal ba askan wi àdduna bi yëpp xam ne wax dëgg yàlla lu jaaduwul ci réew euh, jaaduwul lenn lu ci nekk luñ ci war a teg ci yoon war koo teg ci yoon euh, dana ci am solo waaye bu fekkee nag kenn ku ci nekk la xamee ne moom mooy sa intérêt euh, moom rek ngay xool sa yoon nekku ci askan wi booba jafe-jafe day daal di sax te bu jafe-jafe amee ci askan wi la te loo gis lu nekk rek loxol borom ma nga ca mu mel ni ñi nga xamante si ñoo ko war a woyofal mbir mi mel na ni day mel ni moo leen gënal euh, ba tax ba euh, lañ ca war defuñu ko euh, mu mel ni waxtu bi moo xocc rek ba lañ ca jël sax romb na lañ ca bëggoon su ko defee rek yaa oustaz xam naa dañuy daal di tàggatoo dijee xumaan mi ngi ci biti xam naa du ñàkk mag ñuy teexaarlu taaxeerlu booba léegi ak ñi nga xam ay invité am lañ yaa oustaz waaw kon rek sama sabaa xanaa di sant yàlla bu baax mhm. di leen sant di sant mboolem ñi ñi nga xam ñoo doon teelu émission bi ak fu mën di nekk mm. biir réew bitim réew mm. di jaajëfal ñëpp rek boo wun kenn auditeurs yi euh, Baol Médias yi 88 mm. point cinq ak fu man di nekk waaye nag euh, di ci jiital euh, Sidi Jamil Faye mi nga xam ne émission bu ñu def dana ci dugg àddu muy borom xam-xam itam te itam di ku di ku di ku di ku bëgg lu baax di ku bëgg lu baax suñu jëm ji itam yàlla dogal mu bëgguñu bañ xamal ko suñu bopp moom itam ñoo ko siyaar baax a baax moom Sidi Jamil Fay di ko mm. ñaale baax suñu waajur la mm-hmm. mm-hmm. sama waajur la sama baay la sama wëllëre la waaye sama sëriñ ndeysaan waaw ah, loolu moom yàgg naa ko wax te duma ci a arrêté incha allahu rabbi mhm. sama lépp daal moom mhm. sëñ Bassirou Dieng Touba mhm. Darou Khoudoss di ko ñaan yàlla mu gën fee yàgg suñu kanam allahu rabbi di siyaar ñëpp auditeur auditrice suñu bàyyi xel ak fu mën di nekk ci biir réew bitim réew bàyyiwuñu kenn dina jaajëfal Cheikh Moussa baax a baax baax nag am contentement ndeysaan toogaat gin toogaat fi jàkkaaroo ak yow xawoon naa gëj ndeysaan waaye nag lépp yitte jamono rek ak xat-xat yi waaw waaye nag ne koy ne ngay toogaat di siyaar baax a baax a baax jàkkaaroo gi jàkkaaroo amaat nañ ci contentement baax a baax a baax bëgg nañ ci lool itam bëgg nañ ci mm. lool di mm. siyaar kilifa kër gi sëñ Mamadou Diop Thiat mm. di siyaar Baye Cheikh Gaye Ridial moom itam ndeysaan moom ndeysaan moo ko déggee sama émission rek damay kontaan ndeysaan ndax ndeysaan ku baax la te te bëgg lu baax Baye Cheikh ñu ngi lay siyaar baax oustaz Diagne Faye ak euh, oustaz Sakho ñoom ñëpp ñu ngi lay siyaar ak mbool esaat si ne ci kër gi bàyyiwuñu kenn di ñaan yàlla subhanahu wa taala fekk woon talaata incha allah. Mm-hmm. seen émission xew-xew jamono incha allah ñu àndaat ci. Mm-hmm. yàlla dimbali ñu wëlbati xel ñi nga xam ne ñoo ñu jiite. Mm-hmm. wëlbati ko bu baax a baax a baax xiir leen ci ñu waxtaan. ba mi am jàmm audi euh, euh, euh, population bi am jàmm. Sénégal am jàmm. ñu man a àgg ci màggalu jàmm màggal ko ni ko Sëñ Tuubaa bëggee. am ci ngërëm Seexul Xadiim loolu daal moom la ñuy ñaan incha allahu rabi Cheikh Moustapha eh, jërëjëf yaa oustaz cant ak ngërëm da lay ñeel waaye ñeel nag mbooleem koo xamante ni si rek yaa ngi doon bàyyi xel seen rajo Baol Média FM 88 point 5 nekk fi ci diwaanu Mbàkke tablo Thia bi nga xamante ni si ñoo toppoon eh, ca télévision bi dañuy seetaan it eh, ñu ngi leen di santaat di leen gërëm di leen ñaanal jàmm tey ñaanal mbooleem koo xamante ni si rek sam xel sa xol sa xalaat lépp mi ngi dëgmal màggal gi ñu jubal muy màggal ak tuuba di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan réew mi suñ borom sotti fi ndox mu sedd ba lépp loo xamante ni si ab yéene ak yaakaar la euh, jëm ci lii nga xamante ni si rek mooy bëgg-bëgg askan wi ak euh, yii nga xamante ni si mooy ay jafe-jafe euh, suñ borom soppi lépp def ko ay xéewal yu sawan baawan barke Cheikhul Khadim su ko defee rek ñi nga xamante ni si bëgg nañoo tabbi ci seen bis yi nga xamante ne si rek moom la ñuy eh, dëgmal eh, ñi nga xamee ni am nañ bis yoo xamante ne si dañoo bëgg eh, ku leen koy yaatalal ci safar gi bu ko defee rek ñoom mën nañoo ànd yaatal ci comme ni nga xamante ni si rek noonu lañ koy faral di defee mën nañoo jaar ci commercial bi bu ko defee rek la nga xamante ni si rek moom mooy yéene jaag bëgg-bëgg dana mat sëkk su ko defee mën nañoo jaar ci lii nga xamante ni si rek moom mooy ca numéro ba euh, suñ fa jaaree rek bu soobee yàlla lépp rek dana jàppandi ci ni nga xamante ni si noonu lañ ko bëggee euh, bu ko defee rek yaatal gi da ciy am solo lool ndax it képp koo xamante ni si rek am nga yaakaar ne euh, war ngaa mën a euh, yaatal sa bis wala ci euh, ñu dalal la nga yaatal bis bi ak it wax kañ lay doon ak ni nga ko bëggee ak fa muy doon it ak na nga xamante ni si noonu nga ko bëgg a doxalee bu soobee yàlla boo wootee ci 77 177 43 70 77 177 43 70 mbaa nga def 76 496 17 77. 76 496 17 77 soo ci wootee rek yaakaar naa dina jàppandi lool euh, ba nga xam mën nañ laa dalal euh, nga yaatal lu baree bari ci li nga xamante ni si rek moom mooy liggéey bi numéro yi ci wàllu sponsor képp koo xamante ni si euh, bëgg ngaa sponsoriser émission bu mu ci mën a doon ci rajo Baol Média FM télévision bi incha allahu rabbi boo ci jaaree rek bu soobee yàlla des na yaatal canta ngërëm day ñeen mbooleem koo xamante ni si rek yaa ngi dégg suñu kàddu di santaat bu baax di gërëm mbooleem auditeur auditrice yu Baol Média FM di tàggatoo ñoom tàggatoo bu tàqalikoo ba àjjuma bi dellusiwaat incha allahu rabbi